العابد العالم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الصابر الله العلم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق لم يحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفرع لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى ربنا إليك توسلنا بخير برية يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا جابر قصتي وقر يا باب الغير يا رب لم يفد إذاك صرفنا نحو بابك بجاتي فأنت كريم فالكريم من التجا إلى بابي من على كل نقمتي فأنت حليم يا صبور لمن جفا فأنا عبد لتبادي ذلتي فلما بدا لي أنه ليس مهرب سوى بابك الحامي مددت يديتي إليك بضعف وافتقار وفاقة لتغفر لي يا رب من كل زلتي فبين يدي مولاي يا ما زلت واقفا ذليلا حقيرا مولاي لشدتي يا حي يا قيوم يا الله ربنا يا مجيب لمن دعا دعوتك يا ستار فاستر معيبتي فيا ربنا يسر إليك خواطري بجاه نبي للبرية رحمتي فيا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية والشفيع فينا في اللقاء وكلنا سوى الحب موصوف برعب ورهبة بآدم إدريس وهود ويونس ولوط ونوح محاول قلتي وداود يعقوب سليمان يوسف وإسحاق إسماعيل إلياس جنتي وموسى وهارون وأيوب واليسع وللكبر يحيى ثم عيسى الوسيلة كذا زكرياء شعيب وصالح تقينا لنا الدارين من كل وحلتي ومن الآل بالمصطفى جم شملنا بأصحابي كشف شدار مهيبتي بأقمار بدر يا إلهي وسيدي وبالملل الأعلى شبا كل أمتي إلهي يا مولاي يا بالأرض والسماء وما حوى تابلتي وقنا كل علتي يا حي يا قيوم يا الله ربنا إليك توسلنا بخير البرية إلهي يا مولاي بالأرض والسماء وما حوتها فلتشفنا إلا علتي لك الخلق يا مولاي والأمر كله ولا تكل الأمر لغيرك بخرتي مشارب أهل الحضرتين رزقنا أزل بحجاب القلب مع كل قسوتي مضى الدرو والأيام وذنب عاصر وصاء غراب البين معلم رحلتي مضى الدهر والأيام والجسم عابد سوى الله والرحمن وخالق جثتي مدى الدر والأيام والقلب الشاكر سوى ومنه دهر جلب معيشتي مدى الدهر والأيام وذنب عاصل على أنني مملوك نفسي وشهوتي على ولا مستطاع رجوع فأبى ما أتيت ساعة غيرتي لقد ضاع من ساعة من تشترى بمن سما ولد أية ضيعتي ولا ولكنني أرجو تلافي ربنا ضيل فابني آلكا أيه الكتي على همتي فاجعل إلهي علية لأنصت عرا خالصا كل بجهتي على همتي فاجعل إلهي علية لأن صرت حرا خالصا كل وجهتي ألا إمتي فاجعل إلهي علية لأن صرت حرا خالصا كل وجهتي أردت غيرك تجي فما بالنا يوم الجزاء وحيلتي ألا خاب آمالي لغيرك ربنا كمن غلقت إلا إليك طريقتي وما لي ربي عن قضائك معدل فابني أن أرضى بمر القضية وابني بالأمر ثبات عزيمة على الشياب شكرا من كل نعمتي وأسألك التقوى وحسن عبادة ونال مرامي إلهي وبقيتي وأسألك التقوى الرب الله من خير كل ما بي عالم الغوث عمادي ونصرتي نعوذ بك الضغوى من شر كل ما علمت بي يا ربي جابر كسرتي واستغفر الغفار من شر كل ما بي عالم يا عالما كل قبتي فانك انت العالم الغيب كله سالتك امنا يا نصيري وعزتي الا حسبنا الله غيبتي وظلم لظلام وسحر لساحر وباع لباب الإله وعدتي كذا عسل الحسان غدر لغادر وكيد لكل الكائرين بهلكتي كذاك إلى العالمين عداوة لكل عدو يبتغي دهر صولتي وطعن للطعان وقدح لقادح ومن هي للمعتاد من اي حيلتي شماتة شمات وقدح لكاشح الى ايقنا في الدهر كل بليتي اصول بك الاعداء كذا قرناؤنا واياك ارجو أحبتي وبالقرباء يا إلهي وسيدي لك الحمد مما العزة في قدرتي ولا عبده عبد عوائد فضلك العميم ومن عوائد رزق قدرتي وألوان ما أوليتني ربنا به من الرب والإكرام واسع رحمتي إلهي لا رب سواك فيرتجى فإنك فات العمد عند الخليقة وأنت إلهي باطل اليد في الندى وخير مقارب يا إلهي بحكمتي وفي الأمر والسلطان والملك إلهنا زع لك مولانا فيسر بمنيتي فما لك مولانا إلهي مشارك ربوبية ربي حياتي وعمدتي أبي الخلق يا مولاي غير مزاحم لأنك بالإبداع مغصوب وحدتي وأنت من الأخلاق تملك ما تشاء ولا يملكون منك غير المشيئة إلهي بقطب العالم الإيمان نرتجي الغفران من كل زلة به نرتجي فتح المغارق كلها وقايتنا التجار من كل شدة وكما الشكي عند الإله زيارة زوايا ولكن في قبضتي أنادي وهل يتم نداء وأخرجها هل الدار يعطيني وما زلت أرجو من الله وحده والأمان لا مرارة عيشتي وعدت وأنت الوعد عندك صادق إجابة داعي اضطراري وذلتي إلى أن يرفع الوالدين ذنوبهم كذلك يا رحمن كل المشيقة كذلك إخواني إلهي جملة ومن ينتمي ربي إلى خير ملتي وأسلم صلاة الله ثم سلامه على خير خلق الله من غير سنيتي مع

jëlu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله مخاطبا nabiyahu wa xabibahu sayidana muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin wasalaatu wasalaamu alayhi wa aalihi wa saxbihi wa xulafaaihi maa garadat tuyuuru fi l awsaan wa tacaaqaba al malawaan إخوة الإيمان والعقيدة في الإسلام أصحاب المشيخة خلفاء الطرق الصوفية وقادة المرجعيات الروحية أصحاب السيادة أئمة المساجد والجوامع والمجالس العلمية والكتاتيب القرآنية ورؤساء الدوائر والمقدمين أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم عليه الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نحن أولى مرة أخرى نعيش هذه اللحظات الإيمانية وهذه الإشراقات المحمدية النورانية التي تعد فرصة سعيدة وميمونة نادرة لتذاكر سيرته الطيبة الطاهرة العطرة ونتابع مراحل دعوته وأساليب تبليغ رسالته الكونية العالمية الخالدة التي تتميز في نشر معالم الإسلام والدعوة إلى الله وتزكية الأنفس ومجاهدتها وتهذيب الأرواح والقلوب وتنويرها وتوجيهها إلى الرؤى القرآنية والنبوية المباركة بالحكمة والموعظة الحسنة وإيقاظ الضمير والشعور الإنساني ورفع همته حتى يتمكن من تعمير الأرض وزرع قيم وفضائل الخير والمحبة والسلم والرحمة الاجتماعية في قلوب الأفراد والجماعات mbokk yi ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax a baax cant ga nga xam ne rek cant manu ko weesu ndax moom la sant boppam ci téere bu tedd bi ñuy wax alquran xaytu qaala subhanahu wa taala baada bismillahi arrahmani irrahim alhamdu lillahi rabbil alamin wa aada takrira kalimatay rahma alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki wala maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla ngi wax foofu di wax lépp lu mu bind képp ku mu bind rawatina ña cey mbindéef di ay nit ni ñun jubale wax ji nag ci sayiduna muhammad soppeem ba di suñu sang di ka mu santal boppam yal na yàlla dool li koy wàmmee leer ak mucc ak jàmm li ko wax ci lu jëm ci wàllu yebal gi mu ko yebal wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin innahu la sheyun azim an dakara allahu an abdahu wa xabibahu wa mustafahu min xalqihi sayidana muhammad wa rahmatul alamin ñuy wëlbatiku itam di yeesal ay ñaan ak di julli ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram ak i àndandoom ak ñi wuutu ñi doon wuutoon te ginnaawam ba léegi nag naxnu kulluna xula xalifa kullu waxidin minna xalifa unduru ila qawlihi taala yi muxkami tanzili wa aatuuhum min maalillaahi allati aataakum wa aatuuhum min maalillaah lam yaqul subhaanahu wa taala min maalikum aw min amwaalikum wa aatuuhum ayyuha al-ibaad ayyuha al-muslimuun alladiina yatawajjahu haadha al-xitaabu rabbaani ilayhim aw ilaa gayrihim xatta alladiina laysuu bi muslimiin يتوجه إليهم هذا الأمر لأنهم من عباد الله ومن مخلوقاته di jëme yaat di jëmewaat kàddu yi itam ci ñi nga xam ne ñoo bokk àddu kàddu ñoo bokk imaan bi gëm gi ak pas-pas bi ak principe yi nga xam ne mu ñëkk ci alquran yàlla jëmale ko ci ay jàmm waaw ma dellu si wa aatuhum min maali yàlla nee na alal ji ma leen jox na ngeen ciy jox nit ñi wa aatuhum am min amwaalikum min maalillaah ki alal ji nga xam ne alladi alal ji nga xam ne aataakum moom yàlla moo leen ko jox na ciy jox nit ñi di leen ci dimbalante di seen biir di ci yewanal seenu bokk di ci rafetal seen àndandoo te ma tax ndax moom leen dara maa moom lépp min maalillah la wax wax itam ci beneen aaya subhanahu wa taala baada bismillahi arrahmani arrahim wa anfiqu mimma jaalakum fii wa anfiqu na ngeen di dépenser na ngeen di dimbale na ngeen joxe bi màcca la nga xam ne jaalakum def na leen moom yàlla mustaxlafiina fii ngeen ci xal ngeen ci sama xalifa man yàlla yéen da ngeen di sama xalifa wuutuma alal ji jaar ci seeni loxo waaye bindu leen ma bind wërsëgu leen wax joxu leen kenn wërsëg ma nga moom muy dimbali ko te war ca mën a dimbali ñeneen lépp ci man la antum idan xulafaau llahi fi lmaali alladi tatasarrafuuna bihi wa tunfiquuna alayhi aw tunfiquuna bihi ala annaas wa ala ixwatikum wa tafaluuna bihi alxayra kulla alxayr wa qawlihi taala wallahu faddala baadakum ala baadin fi risq fama alladina fama alladina fuddilu biraadi risqihim ala ma malakat aymanuhum xaqiqatan fa hum almuctuun walaaxiduuna sawa fa hum fihi sawa afa bi nicmatillahi jaxaduun subhanahu wa taala loolu la wax ak yonentam bi mu jottali ko ba ma wallaahu yàlla faddala gënale na gënale coobare ak namm-nammam te kenn du ko ne lu tax faddala gënale na baadakum lenn ci yéen ala baadin ci ñeneen ñu tëddal fi risqi ci li ñuy tudde wërsëg fama alladina fuddilu déeddi ña nga xam ne dañ leen may wërsëg wu ñu mayul seen yeneen i mbokk wala seen yeneen i dëkkandoo wala ay nit ne ñoom te ma leen san sant leen ne na ngeen ci joxe bi raadi risqihim ñuy joxe seen alal jëm leen moomale alama malakat imaanum delloo nañ leen ko nanguwaat ko fahum fiihi sawa foofu ñoom ñi mën a bay joxe ak ñi amul dara te jara dimbale moo xam wax nañ ko moo xam wax nañ ko waaye daa xool xaalu nit rek xam ne waroo ko xeebal ñaari téeméer waroo ko xeebal fukki junni nga jox sa ñoo ci yem yàlla na posé benn question ne afa bi ni'matillaahi yajhaduun afa bi ni'matillaahi yajhaduun hamza istinkaariya la ليست ليس ليست هذه النعم التي شرفنا الله واكرمنا بها ملكا لنا انما يكاد يكون ابتلاء lana yàlla ne du ñi nga xam ne ñoo am cër boobale am wërsëg woowale am moyen yooyale di ko jox ñeneen dañ xam ne ñañ koy jox ak ñoom ña ko joxe ñoo yemoo ci man yàlla kenn waruma wedd kenn warul wedd na xéewal gi ci man la jóge yàlla dañul ci alxuraan ku bi yar nit ba tey itam ñu ngi jëme yooyu ak kàddu yi di ko teg nag di ko teg nag di ko teg nag ci ndigalu xalifa bi al cheikh al sayid aboubacar mouhamadul mansour كأنني أخرت ما كن كأنني أخرت ما كان يجب علي الابتداء به ولكنه ليس خطأ ولا تعمدا إنما شدة الشوق هي التي دفعني إلى أن أتوجه إليكم بهذا الكلام مباشرة دون ذكر السيد الخليفة الذي شرفني أن أقوم بالنيابة عنه بإلقاء هذه الكلمة أو هذا الخطاب إن شئتم xalifa bi di sëñ Babacar Mansour di suñu mag di suñu sëriñ di suñu soppe di suñu xalifa ci biir ak ci biti di xalifa maamam di xalifa Cheikh El Hadj Omar Fouti radiyallahu anhu di xalifa Cheikhuna Tijaani radiyallahu anhu wa an jamiici xulafaa'ihi wa muqaddamihi bal wa kaafati talaamiidihi talaamiidatihi min attijaaniyiin سيد أبو بكر منصور قد يصعب علي أن أتحدث عنه لأن نفسه لا تميل إلى ذلك ولا أحب ولا أكاد أجرؤ أن أخوض في شخصيته الخاصة كإنسان قبل أن يكون خليفة fi ilmihi fi thaqafatihi fi fahmihi lil xayaa wa ma akthara almaani allati yumkinu isticmaaluha fi lafdati aw kalimati alxayaa sëñ Babacar Mouhamadul Mansour bu ñuy waxal bëgguma sori ci moom bugg ko waaye nag ala kulli xaal itam ñu jéem ko wax rek ndànk donte le dañ koy déey ku baax la ku tedd la ku sell la man yàgg naa ak moom sëñ Babacar Mansour maa ngi ànd ak moom 1951 wala wala 50 yàlla dafa dogal Seyid Cheikh Ahmad Tijani al Maktoum bu Sëriñ Babacar di suñu mag ñun di way juru sama ñaari doom yi Abdourahman ak Mam Malick ñuy Serigne Cheikh jur leen sànq bi ma téléphoné naan papa dañ la bëgg a gunge ci sama turu papa Serigne Mbaye Mansour ci zaw yëppa mbég ma am jàll rek ku ko xam ndax nii rek la góor gi dafa mas wax Serigne Cheikh ne ko Maodo mii dama la koy faye bor ndax danga nga ci dal jàng rek sa baay Sidi Aboubacar jox ma la ma di la jàngal tukki nañu fu ne Saalum kaw la ngir ngi new seeti góor gi ma turee njaw boobu moo fa nekk doon fa kilifa di chef de gare ak dëkk yu bari mu jigi jox ma ko du ma ko fàtte mukk sëriñ bi di sëriñ cheikh ma nga kër cheikhul xalifa bi nekkoon rii ceer tey ñu di ko tudde rii Amadou Assane sëriñ bi jël ma yóbbu fa sëriñ Mansour nga fa amoon na xaritam bu ñuy wax mbay mbeng fa la daan fanaan yi moom sëriñ Cheikh dama fàtte tur ba waaye ku ko xam laa ku sant Njaay la te xeesoon ni di xaritam bés dama ko fàtte ba tey itam sëriñ Cheikh ne damay jël Mam Malick ànd ak moom ñu def photo souvenir pour ma bàyyee ko soxna tabaroj muyu sama wéy juru jigéen pour mu di ko ko fàttaliku di ko ko xoolee walla dogal def ko ñu ànd dama wérati woon bi may xale mu ne góor gi comme que maam Malick dafa wérati te docteur yi koy faj di docteur Issa Diop nekk hôpital de Dantec ak docteur Moustapha Fall nekkoon ci Médine ci wetu marché Tilène ñooy toppatoo santeem dafa mel na am na lu gën a yomb ci moo di ma ma teg ko ci loxo sama pap Cheikh Ndiaye mu teg ko ci loxo Serigne Babacar Mansour ndax Serigne Babacar Mansour yéene mën na ci moom lu ma mënul man la mu la mu ca man man manuma ko te man kon la cay wut mbokk gi de de jox ma Serigne Babacar mu yore ma sonn ci man wax naa ko seen gàmmu pare ga atam sonn ci sama yar lool bëgg ma lool ñeewanti ma lool yërëm ma lool te di def nag la war ci sama wàll ci wàllu yar ki waxin ci jëfin ci xaw a ñàkk def yitte ga ma war a def ci njàng mi yàlla dogal moom mi fi nekk tey xalifa bi ay soppe lañu yàlla ko def maa ngi fàttaliku lépp lépp ci gàmmu gi la lépp ci waxtaan gi la du gàmmu waxtaan gàmmu gi tàmbalee mu ne damay waxtaan rek jox ñuy gàmm euh, sëriñ bi bés mu bette ma mbég mu rëy am tudd maa ngi ci daara ji ci kër sëñ Lamine Kebe di fa jàng jàng mu xaw yaatu góor gi Cheikh Alxaaji Abdul Aziz du bëgg benn téere bu may jàng ma paase ca benn xët ñeneen ñi may jàngandool daañ dem ba ñaari xët ñett ba ñeent ñoom Cheikh Ndiir mu góor gi El Hadj Malick Ndiir ñoom Xasan Fall rahmatullah alayhi ñoom El Hadj Guèye rahmatullah alayhi bari nañu bari nañu bari nañu waaye man góor gi benn xët rawatina nag maqaamaatul xariir yi téere bu jafe te gudd lool man benn dafa naan benn xët bu ko weesu ñeneen ñi nag daañu jàng ba jàng ñeent wala juróomi xët man la tax nag mu def loolu su demee tukki su su ñëwee guddi sax ne Umar di ma loolu ma Maodo loo jàngutee taril maqaamaatul xaar yi dama ko daan tari te ak a jafe waaye yitte ja ak yéene ja ak ñaan ga moo tax yàlla dimbali woon ca dimbali woon ma ca goolaan fii di kër Serigne Babacar Mansour fi laa nekkoon am fi daara alxuraan du di fi jàngale yu bari góor gi itam ku ñëw ci mbaax ko jàppe ñépp ne surtout Alaaji Maalik dañu bari nañu ñëw ñoom Cheikh Ndoy ñoom Souley Souley Ndoy bu mbaaw bari nañu mu ne woo leen ma Maodo su ñëwee mu ne àndal ak moom ngeen dem ci daal dana dem sax ba su gan ñëwee te aw ma fu ma tëdd te amul fu mu tëdd mu ne nee leen Maodo na wàcc na génn néegam wàcc lalam jox ko ko mu tëdd ci te te mu tëdd ci suuf Sëriñ Babacar nag yar ma te sonn ci yar ba ngir bëgg ma baax di sama sëriñ di sama kilifa di sama mag sama doom baay waaye sopp ma yar bi yar bi cofee la ko lal nag ci zaahir ak ci baatin moo ne nañ ko wuutu yéen ñépp ñu niru leen ko dalal leen jàmm jotal leen ay ndokkeelam ak ziyaaram euh, ku fi ku fi ku fi mën a wax ñaar wala juróom ñeenti béyti ci li ma wax ci moom sëriñ Baye te ëpp na ko nag ci xasidam bi ma fa min ni ilab ni am mi cheikhi abi bakri sa mi yaatiqillaahi abi bakri muy son pap xalifa di turam moom itam ku ci mën dara dommage وأبدو فمني إلى ابن العم فمني إلى ابن العم man kay Pape Mbaye lay wax cheikh yi Abi Bakri ah, am nga ko sa portable puisque Kay Kay Souleymane Sy. Kay Kay Touré Sy. Cheikh Abi Bakri. bi góor gi defaroon ci yow wala bi. ilal xibbi wabni al-ammi Cheikh Abi Bakri wa waarisi Cheikh al-qawmi dil faydi wa sirri mën nga koo firi pour béykat bi. fa min fa min ni. ilal xibbi. ila ilal xibbi mi ngi jëm ci soppe bu mag bi. wabnil ammi tey sama doomu baay ñu naan ko kan cheikh yi muy sama sëriñ Abi Bakr sëriñ Babacar Mansour. wa waariti wa waariti cheikhil qawmi dil faydi wa sirri te te do te doon te doonay borom cër bu rëy ba borom bëb bu leer ya ak sëkkëre muy El Hadj Mansour. ilaa man ngi jëm ci la way bi xasida ngi jëm ci ki nga xam ne sama kawe na dara jàmm ak kii ak ak ak mayam ak tedd ngam foo ko simakkeen mi ci biddéew ya gën a kawe ci kaw wa tawwajahu te te kaala ko wala te lamb ko te lambe ko mawlaahu boroom bi ko bind bil azzi ci tedd nga wan nasri ak ndimbal loolu yàlla defal na ko sëñ Babacar Mansour ila tuhfatil aqraani idil faxri wal ula ila tuhfatil aqraani ki nga xam ne mooy cadeau ay contemporain yëpp ci ay ci jeunesse bi wala ba ci ñu ko mag sax kay boroom tedd nga ak gulwaax absolu ñu ne waaw kooku nag ñu koy waaye kuñ ko tudde ma ne sami yaatiqillaay ñu tudde ko ka nga xam ne mooy kay yàlla xool wër wëre ko ndomb ak ak may muy am mi sama waru sama waaj sama baay sama di aji sëñ Babacar Si radiyallahu anhu fa illa wal quluubu maliatun bi xubbin wa ixlaasin wa shawqin kada bishri sëriñ bi ñun sa rakk ji ñuy wax Maodo dikk nañu tey fa inna atayna ku dëkk nañu tey wal qulubu te suñu xol yi fees na dell ci ak cofeel ak sellal ak mbëggeel ak ak ak eh, ak ba tey rek cofeel jëm bu jëm ci yàlla sama digganteeg yow nujaddidu ahdan fil ilaahi muhaqqaqan dikk nañu taw yow sëriñ bi ëpp na ñaar fukki de wala mu jege ko ñëw nañu tey di yeesal kóllëre goo xam ne kóllëre gaa nga fasoo ci yàlla yàlla fas ko sama diggante yow te kóllëre gu ñu gu yàlla dëggal la muhaqqaqan walil ahdi balil ahdi min faydikum yasri walil ahdi ñeel na kóllëre ak cofeel maa la nga xam ne li la ahdi ñeel na ko rek cofeel ca ña ko seq te yàlla tax wala yàlla defal leen ko min fay dikkum ci ci loo xam ne ci seen bëb bu leer yasri lay doxe jëm ci sama xol man Maodo jóge ci xolu sëñ Babacar Mansour sëñ Babacar Mansour addiq naa dimbali ñu waay man Maodo Sarak mosal ñu ci bëbbu leer yi nga xam ne ñu ngi jóge ci sa turandoo bu tedd bi di Cheikhul Xalifa Seydi Aboubacar Si sëñ Babacar Si jóge itam ci suñu baay bu tedd ba di Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour kay boroomu tedd nga ak daraja. jóge itam ci ci mayu ak ci leeru ak bobbu leeru dabbaaxil xulub Cheikh Abdoul Aziz mi ñu naan Abdoul Aziz Dabbaax lu yéeme la sam xalifa góor gi dafa yónnee wax ko ne ko. am am nañu gan muy man mi sama pap xalifa daal di bind ne hani an li dabaaril qulubi li rabbi waxul waxul li nafsihi hani an ndokkeel gu mu ci ndokkeel li dabaaril qulubi ñeel na ki nga xam ne day wulli xolu jàmm ji waaye waxu jëme ci boppam de lu mu wulli ba mu nooy rek mu jox boroom bëtam jël na ñëpp moom rek lay xool moom yàlla da ca topp jarul di wax ومن قيد دباغ القلوب لربه أبي أحمد المنصور أعجوبة العصوي mooy bàyyu Mansour Mansour mu baax mii ngeen xam ko bëgg yàlla sell am xam-xam xam nu muy jëflanteeg boppam xam nu muy jëflanteeg ay mbokkam xam nu muy jëflanteeg nit ñi ak àdduna fu mu waxee ñëpp kontaan رضا فيض شيخي شيبة الحمد عمنا حبيب رسول الله خير بني فيه sëriñ bi mosal ma itam ci bëbbu leer gi nga xam ne yaa ngi ko jëlee ci borom ba jaww leer bi muy Cheybat alhamdu muy alxaaji Mahamadul Habib si daf ñu Cheikh alxaaji ma di sa baay وأعني به قطب الزمان محمدا محمدا الحبيب الذي قد حاز ما حاز من سري. ka ma ci jublu sëriñ bi mooy sa wéyjur li nga xam ne mooy Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib kii borom may ak la mu làq ci ay mbóot moom si El Hadj Habib si. te ka ma ci jublu mooy xutbu zaman El Hadj Habib xutbu zaman la borom may la borom leer la Cheikh El Hadj Malick ñi mu jur ñëpp Cheikh El Hadj Malick lañu euh, du du du duñ ko cof wala ñu naan di moo am looloo am. Cheikh Xaaj ma ku mu jur rek moom la loolu la loolu la yàlla ma loolu la ko yàlla may ay safwatul axyaar dumtu maa rida yéen daayira safwatul axyaar ci ndar dumtum yàlla na ngeen sax waaye ñu ànd kook yéen ala rida ci ci gërëm yàlla rek am nañ loo xam ne du dog te lu dogul na te yiwu àdduna àllaaxira gi ngërëm rek ca war taxufukumul xayraatu wa sitri yiwu yàlla di leen peeg ngeen di ko bëgge ci wàllu bés bu nekk bu ànd ak tedd nga ak dignité ak honneur hanian lakum ahla almahabati walwafa wa bushra lima xustum min alfawzi bil ajri ndokk maa ngi leen di ndokkale yéen safootal axyaar ndax li leen yàlla baaxe ngeen am ko ci sang bi di tedd bi ñu naan seen Babacar Mansour ngeen am ko ca. minal fawzi bil wa bushra liman fawzi bil ajri. leen ku bégul bég ku bég bég leen ndax li ngeen làq ci ànd ak sëriñ bay ngi seen sëriñ di teg ci yoon ngeen am ci. minal fawzi bil ajri. ngeen am ci texe ci tonu ak yiwu àdduna ak alaaxira صلاة وتسليم على شافع الورى وخاتم نبو الأنبياء ذوي القدر مع الآل والأصحاب ما قال شاعر إلى الحب وابن العم شيخ أبي بكر ما شاء الله ما شاء الله kenn la ci ñun ndigalam la ñuy waxe mi ngi nee na mi ngi ndokkeel ñëpp nee na mi ngi nuyu rakkam ju baax ji di suñu rakk Seydi Aboubacar Abdoul Aziz mu baax mu di mi nga xam ne mbirum daara ji mbirum njàngale mi mbirum yar mi mi ngi ci loxoom te mi ngi bëgg a yàgg nag përki ma dañuy waxtaan ma ne ko sëriñ yow nag dangay nga daal dakaar nga juddoo waaye waa Tiwaawan nga ndax bi la sama papa di indi Tiwaawan waaw boobu xëy na yaa ngi Abdou Aziz Dieye expert comptable yaa ngi yéen a nga war a toll ci yoon ñaari at rek ba léegi ñibbi foofu <laughs> dellu si waa Dakar ndax da nga nekk sëñ Lamine Kébé radiyallahu anhu ci njàng mu baax mu metti sama pap xalifa yàlla dogal mu dem bésu altine talaata àllarba alxames àjjuma sama pap mën soo dem dafa dëkk ma ne ko te yow xam nga sa sa ba tey dem nga nuyu ko ba tey cheikhul xalifa fii ci Kaolack wala Ndiassane dem nañu ba tey man maag Moustapha Sy Góora ak papatal bu soxna sama bàjjen xarit si Madina Tall bu Alaaji Seydou Nour Tall bi yaayam ànd nañu ba tey son pap xalifa Moustapha Sy Serigne Gora moom da daan ñëw dugal loxoom ci poos son pap naa xalifa jox ma sa xaalis booy doomu baayam la Alaaji ah, Mor Xujja baayam ak baayu Cheikh El Hadj baayam ak baayu Cheikh El Hadj maan ñoo bokk ndey ak baay maam Amadou bi ak Ousmane su ko defee nag mbokk yi Serigne Babacar Mansour yal na yàlla dolli ko mucc yal na dolli dolli ko jàmm ku tedd la ku baax la ku yiw la ku bàyyi xel yàlla la ku am fit la waaye ku am sabo la fit wu sago la yàlla defal na ko ko ah ñu ñëw nag ba tey yemma mokkal yemma yëggale li ñu doon wax rek ñu ñu ngi dund ci waxtu yi moment yoo xam ne waxtu woo xam ne ngelawu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i leeram mi ngi upp ci mbooloo mi ak adduna bi yëpp fil malay al ala wa fil malay al asfal ma nga ñu ngi koy feetu ca kaw di ko feetu ci suuf gox yëpp ma kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum du yéen du ngeen moom walakin rasulullahi wa xaatama nabiyin du kenn ci yéen ma kaana muhammadun aba ahadin nee na itam su ngeen dee wax ak Muhammad laa tajaalu duaa rasuli baynakum ka duaay baadikum baadan su ngeen demee bay woo yonent bi ànd leen ak yar su ngeen koy woy ànd leen ak yar moo tax temps gis naa ci budd bi ñuy jaay def ndax ma metti ma ne ñi xamuñu ne yonent baa ngi fi yonent bi fu mu toog na ñooña dal di di di kii lan la fal nataadab maa xadrati فهو موجود في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت خصوصا خصوصا في هذه الحضرة التي أسسها محبه وحبيبه وعبده الشيخ الحاج Malick góor gi sax ci boppam yooyu daf koy metti yooyu xew ci mbiru gàmm yi def ni ak burdi daf koy metti te dégg ngeen ba tàyyi léeg-léeg góor gi mas na wax ne gis na cheikhul haj malik radiallahu anhu ciy nelaw mu ne ko yaa abdal aziz nee na mën a tekk di ko déglu mu ne ko qul linnaasi fal yataaddabu ma'i li anni lastu ala alxaalati allati kuntu alayha fi dunia yaa abdal aziz nee na mën a tekk di déglu papam mu ne ko neen nit ñi nañ ma jox yar ak teggin te warmaal ma ndax kat na ma nekkoon ak ñoom ci àdduna bi ma nekkee fii ci bar sax nekkati ma ko ñoom noonu فإنني لست على الحالة التي كنت عليها في الدنيا ko defee yooyu kon ku nekk rek yaay seet nooy duggee ci xadra bi nooy ziyaara nooy jëfe nooy waxe sax sallallahu alayhi wa sallam daf fiy teew billahi alladi la ilaha illa wal quraan al azim nekk na fale ñuy wasifa jamono koor mel na dama gis yonent bi fii ñoom maam Malick toog mu ngi tëdd loxo bi soonu ci loxo bi jël benn tànkam teg ci beneen tànk bi fi ma toog ci pale maa ngi gis ko di eh, eh, bopp bopp bopp bi deru bopp bi bi ngi leer nañ bëñ yu rafet bëñ yu rafet xaala boo xam ne dangay ngay waru na war na dee leen ko mos fale dee leen foto koyam bi fi ki sol lu verte bi taxaw dee leen xëccee place bi da ngeen koy gis insha allah mu di loo xam ne nag mayuñu ko suñu bopp liggéeyu lu ñu yàlla lu ñu may loolu wallahi lazim ñoo gën a kàccoor ñëpp ñoo gën a dellu ginnaaw ñëpp man xam naa sama bopp yéen ma gën waaye rek bokk nañu rek sopp yonent bi ñun ñëpp bokk nañu itam ci njabootu Cheikhul Hadj Malick ñun ñëpp yal nañu yàlla doole tas ci bopp ci ci barke yàlla dogal Serigne Babacar jàngal ma di sama ñoom papa demee itam ma nekk fi Ngolaal di fi jàngale di dem ci sëñ Lamine Kébé góor gi nag loo jàng mu ne loo jàng guddi ma ne la deux heures du matin léeg-léeg am kenn ku ñëw ne ma kaaw yi sa papa mu ñëw foo jàng tey ba bés bi ñu koy tàggee sama papa sëñ Babacar Si ca Ndar bésu altine la boobu maa ngi ci babu tanazor تنازع وابن العم لا اقتضيا في اسم العمل قبل فللواحد منهما العمل كيحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك mu ñëw fekk sama yaay Fatma mu ngi defar café mu ne ma gàlle na nga def mu ne ko yaay mu ne ma góor gi di mu ne fekk dafa demoon Dakar mu ne ñëw léegi la yegsi mu mu dugg daal di ko nuyu aliment jàng foo foo ku nuyoo mën a ndax jàng ko loo jàng tey tuuti ku ñuy wax Iba Ndongo ñëw di denc suñu benn doomu baay ñu naan ko Ndeye Fatou Sow du sëgg ci noppum di di di di di sama papa yow laa ilaha illallah laa ilaha di jooy di jooy sama yafaat bu dugg na ko sëriñ bi lan la mu ne ko dara mu ne ko lii xajowoon ci ko dara mu ne ko lii soo ko soo ko soo ko àttone ñun dañuy dee de mu ne ko fat sëriñ Sidi Abubakar leen ne nopp nelaw na Hadj Malick wàcce su nga woo ñoom Gaye Del ñoom uh, Omar Diop ñoom Abdoulaye Mbaye ñoom Oumar Ndiaye Dar ñoom diw ñoom diw ñoom Malick ñang Mbaye ñang bu waalo ñu daal dem léegi sa yóbbu jàng ay kaamil oto bariwul boobu jamono yónnee toppoolu ay oto jubali Tiwaawan muy bis bu doy waar muy altine talaata àllarba alxames ak juma oo talaata altine talaata àllarba alxames ak juma Cheikh El Hadj Mansour dem fekk sëñ Babacar mënuñu teqalikoo mënuñu teqalikoo yàlla yàlla ci doon wane boppam sëriñ bi nag nee na mi ngi ziyaare ñëpp di nuyu ñëpp nag dañ ko jox suñu nos te tiwaawoon tiwaawoon Tiwaawoon dal lam mi ngi rattax na ci wax nangam nangam kii dafa juboowul ak kii kele juboowul ak kele dafa contre kii yéen ñuy bëgg a rey nii lañu mel ñun ñépp nii kenn mënul ci sa moroom dara su soobee yàlla ndax soppante nañu bëggante nañu ngir suñu maam ak suñu bàyyi euh, cheikhul xaaji Mouhamadul Mansour radiallahu anhu am na woy wu mu woy ñu jàng ko rek daal di yewi suñu ñaari doom yu tedd yu baax yi maam Malick maam kontaan nañu kontaan nañu si Abdourahman kontaan nañu kontaan nañu xaj Mansour woyam bi yéeme na wa hada darixu cheikhi bayna zuhurikum wa man lam yuaddi xaqahu nqashaa sitru nee na moo bàmmeel baa ngi de ata tu leen tu leen man Mansour day wax ak yéen de yaru leen te dal te te te bàyyi deru deru gor yi rawatina teru deru njabootu cheikh alxaj mañ bi tawqiirihi aynu saadati waljada ci ci warmal Cheikh El Hadj la texe nekk ci la koom nekk ci la xel mu dal nekk ak texe abadan fa man chatta min gayrin faqad xabita sirru képp koo xam ne da nga féetéer nu la neex wax loo dégg ci mbedd mi wax indi ko ci biir jàkk ji deme ko ci mbedd yi yàlla xew yi na sa sutura te yëguloo ko Cheikh El Hadj Mansour mooy wax tiwaawu nakum haadi mahallu istiqaamatin ala fastaqimu mithla man qablakum maru man ji Mansour maay wax yen yéen Tiwaawan gi barab bu ñuy jube la barab bu ñuy baaxe la barab bu ñuy jege yàlla la kon boog li xew ba xew fastaqimu na ngeen jéem a jub yéen ñi dëkk Tiwaawan yàlla muy muy natt bu rëy ci ku fi dëkk mithla man qablakum maru jub leen ni ko ñi àndoon ak Cheikh El jube ñu àndoon sëñ Babacar jube jub naxa wantaxa it kaana ya tere na wantaxa te moo jëkk a def la mu tere moo ko njëkk a bàyyi moom kan mu ne muy Cheikh El Hadj Malick wantaxa it kaana ya jamono ba muy dund kenn du wax safaan kenn du ko ñeme def wa mutamiran di digle lu baax jiitu ca ñëpp yaa xabada nahyi wal amru su tere lu mu tere nga ne iskay su jëfee lu mu jëfee santaane ku nga ne iskay ndax la muy tere daf ko dul def la muy dégle ci la dëkk Cheikh Hadj Mansour nee na kon boog jéem leen ko roy man de maa ngi ci yoonu di dem man Cheikh Hadj Mansour fala taxsibuhu mayitan fi darixihi hum shuhada al ahyaa dammahum min qabl fala taxsabuuhu bu leen jortu mukk al cheikh al xaaj maani mayitan muy muy ku muy ku dee fii dariixa ci biir bàmmeel bi ñu ko gas suul ko ci ngi dund de waaw fala taxsibuuhu mayitan fii dariixihi hum shuhada al ahyaa dammahum ay martyr lañu ci xaqiqa ci leer ci leeru yàlla waaw cheikh al xaaj maani al xaaj maani du nit amul moroom wayu Cheikh Gassama bu bu neex ba su jóota taxoon xaw ma lan Sëriñ Seydi Aji Maalik falul bakkan muy limaan déedéet bakkan dama ko daan aaya ko faw la muy dégaan minal ko di mus lu wex moom mu ñam su bëggoon ne mu am waaye bëggul ngir la mu xam ngiru du nit yax day fërëx Maodo jàppata xool lax lerax su jot defoon jëbu yi melax miinoo nayit dajaay bu sax cërëm ya dootunu sanax yaa ma toroy si ku rey Cheikhu Tijaan Chérif la roy te Cheikhuna waaju ko roy sunna si Yonent bi doo ko rax yaa ma ta roy si ku la roy Cheikhu Tijaan Chérif la roy Cheikhuna waaju ko roy sunna si Yonent bi doo ko rax Cheikh Sidi Haaji Maalik sa nëbb gi si daa taxul ngay mel ni weer ci biiru niir gumba sax janoog sa leer gi yàlla tas ci bépp gox Maodo da lay digal du la dugal da lay yëgal la lay bégal yàlla wax da lay na gëm jullil te woor génneel la war nga kaman di leen sikar sax leen ci lii du leen yaa seyxana nun danu mar mar way weesu na tar te réere woo ci la la war koo dundal du nax yaa seyxana nun danu mar te mar way weesu na tar ñoo fi sa doomi ngir sa neen moo ni reyul du moom keneen meneen fi nun dafay forox wa allimuun abdul atbaa qaala bi abul hajib alladi léppam da ko rafetal jazaahu anna ilaa uraash xayra jazaa maa daama sàmmay wëttal subhan ba ngoon mu jofal yéetane gi neena réew maa ngi ba kenn dofatul wa xarban xulamaa yaa ngi fenn desul ndax guddi gi dem na ba pare waaye itam fi mu waxee loolu rek la Cheikh El Hadj Malick jëkk dem wax yu rëy laqiinaa zamanan laa yubaaluuna wa ma hamuhum illa tiwaalu binaa yi Cheikh Hadj Malick nee na cey Maodo man de li ma dajeel jamono bi doy na waar nit ñi de dara yu téelatu leen lu dul tabax yu rafet kër yu rafet ak mbubb yu rafet waaye yàlla seral sa der seetal sa làmmiñ ci wax lu safaan jëme ci nit ak noonoonte ak bañante moom laa fi gis zamaanu tumuuxil ayni duuna qanaatin jamono boo xam ne foo toll yaa ngi seet rek loo am ak noo koy amee ak fan ngay jaar yoon wa nag nu la ko sa xel tëral rek dangay ngay dem pëlëx dem yitte wootuñu moom Maodoy wax de lu dul alal ju bari alal ju bari baax na waaye jaare ko rek fa nga ko war a jaar wute ko na nga ko war a wute waaye pexe rek ak lorante rek musiba la Seex Xaaj Maalik nee na waqat jaalu mujj nañu def sax rawmal hadiyat yi di sàkku addiya bër di ko wut di ko laaj taalibe yi muy xirfatan muy mécc ak ak ay mécc mu bon maam Alaaji Maalik wax de bër di laaj addiya ak ak bon waqat jaalu mujj nañu def rawmal hadiyat yi sàkku addiya xirfatan muy muy muy muy mécc وما دينهم إلا احتياج الثراء واو حفة تهادوا في تهادوا بها السرور عظيم غنائي ñu di ko xaj joxalante naan al alalu taalibi sëriñ moom fon la ko moole si xaj man nee na seetaan leen wax alalu taalibi sëriñ moom sëriñ moomu ci dara ti sowlil bu baax waay alalu taalibi sëriñ moom nee nañ ko seetaan sëriñ moomu de taalibe ko moo ko moom di ca def lu ko soob lu mu bëgg ci kum ko bokk seqal wa misaanu daa indil huda rafu himmatin anil xalq seen nee na lii wane nit ku mat nit mooy yëg sa yitte nga yëkkati ko ba mu gën a kawe nit ñi bañ foo nekk gis leen foo nekk wuti wuti feem ngir am alal ci ñoom Serigne Baye Mansour de noonu lay moom noonu la mel Serigne Cheikh Tidiane si itam noonu la mel radiyallahu anhu wa nafa'ana barakatuh wa ma kaana ayban la doon ayib démb ca mag ñi ba ci suñ jamono ñun alaaj Malik di man mi wax li lépp lu nekkoon di lu bon di lu ñaaw saara xusnan tawafuqan ñëpp ndëppoo nañ ca rafetal ko rek ba mu mel ne lii lu war am la te mënul am laqad jalabu li diini kulla balaayi nee na wàkk nañu diine tooñ nañu diine soppi nañu diine ci turu sëriñ ci turu sëriñ du loolu am na macha allah nee na daa gis bàyyi an xamran ci biir këru diine ñuy jaay xam ñu jaay sàngara yu xilluha mu di ko dagana li jaxlin ngirug réer wa bàyyi diine ak kuy jaay diine te kat diine du mécc de diine jaamu yàlla baynaka wa bayna allah léegi dañ koy jaay fixtilaati nisaa ji jigéen ñi fa xoolu jigéen ñi gën a rappaaju ak tëgg ma ak pecc ma fa la ñuy nekk na dañu wooteel dal la lañ maa li ko ko bind yàggu na yàggu na wa rafiatan sawtan ka aswaat wa aswaatu xilwiya xaraamun ak koo xam ne fu ñu toll ñu ngi ci xolu góor ñu góor ñi nekk ci xolu jigéen ñi ñuy fecc dégg naa benn bànn sëriñ Cheikh ne man li ma gis xaw ma ko kuy tagg yonte bi da nga koy tagg ci xaalam moom si xaalam nga koy tagge waaye doo ko xaale sa bëgg-bëgg ak sa bopp yar bàyyi la ak wataari ko awqaatin ak ñuy bàyyi ay julli mu di leen raw di xidmati cheikh yi ngir liggéeyal sëriñam nee na ñooy mel na sëriñ bi moo leen bind wala sëriñ bi moo moo moo bi moo moom waxtu wi ak kuy bàyyi se waxtu julli nee naay damay liggéeyal sama sëriñ kooku daal xaaj ma neen nu mu mel mu nekk abiri asnaamini bi doone mi raaya moo kii jaamu xéram ñooy yem ma xamal leen ko man Cheikh Alhaaj Maalik xëy cheikhu aada rutfatan li na fa jaahid ndax yonent bi sëriñ bi ak lu mu doon ak lu mu kuñ ko tuddee kuy maamam moo ëpp cër moo ëpp dara yonent bi salaa sallam nee xoolal yonent bi salaa sallam dafa daan nekk ci biir xale sax yàlla ne ko waxtu bi su jotee ñii nañ am na taxaw di garde muy pare ñeneen sëlma ñii soog a ñëw wa daaminu jannatin ak koo xam ne sëriñ soo xam ne nee na dañuy warlul seen taalibe aljanna وجانب وضامن جنات من المكر آمنا وخسران ذي أمر شديد جلاء ومن يدعي مهدية ليقت ak ñoo xam ne dañ na may imaam mahdi ngir kan na su rek ak kan na su ak réer ñooy imaam mahdi góor Cheikh Hadj Malick li mu war a wax ci société bi rek wax na ko lu mu war a corriger lu mu war a wane yoon wan na ko ba muy teere daal mooy nangeen ngeen seen seen taalibe yi leen yàlla nattoo nee na innal machixata ibtila moom lañ mu ne nee na nee na cëriñ nattu la moo tax mu naan fa ala mani tulie bil machixati ku yàlla nattoo nga nekk sëriñ defal attention nit ñi daañu lekk gaynde lekk la wala yow nga mujj di gaynde lekk dem ba ngeen bokk teer ci kanamu yàlla ngeen di xoolante kenn du mënal sa morom dara nee na képp koo xam na dañ lay topp ci jamonoom de waxuma laa suñ jamono di laa la tutaabi andi ma huwa ajda laa li a bi atooy da ngay wax nit ñi ñu wax taalibe yi nañu war a jëfanteeg seen borom nañu war a jëfanteeg seen digg seen diggante mi ñu nekk ay ñëw ne dañu di ay taalibe te bañ topp sa bë sa bëgg-bëgg bañ topp sa bànneex lu nekk nga def Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu Cheikh El Hadj Mansour dégg naa daan na wax ne Tiwaawoon lu dëkku ndaw lu sox ndaw lu war a liggéey wala soxla sa bopp kooku moom ñëwal ziar rek dem nekk si yitte sa liggéey waaye mag moo xam ne dem na nag ba dooleem jeex war na mën a ñëw nag toog su su ñëwee toog ah di jaamu yàlla su ko defee mbokk yi guddi gi wéy na mu sant yàlla nañ doole soppante bëggante wóolonte ngir jëmm yàlla te ñun ñëpp ñu ànd dimbali xalifa bi looloo yitteem loolooy bëgg-bëggam bennoo gi ñor na ko yitteel na ko soppante gi yeneente baax yeneente yiw ñor na ko ci biir ak ci biti te kat mooy xalifa maam mooy xalifa cheikh di turandoo Serigne Babacar Sy tey turandoom doomam yu tedd yu baax yi di góor ñëpp dem nañu ñaari doomu jigéen la fi des ci àdduna tey soxna Safeetu ca Dakar soxna Fas bokk ak Sidi Jamil ndey ak bay ak soxna Aminta Xalifa bokk ak Sëriñ Cheikh ak Sëriñ Abdu ndey ak bay su ko defee kon daal doon na bëgg daal doon tele man melu ko defuma ko ñu gën a wormaal xadra bi ñu gën a wormaal góor gi ñu gën a bëggante bañ a xeebante bañ a bañ yàqante yàq deru nit gënul nit day moytu boppam ndax kat bari na koy naan seetal lii diw te la nga def doo ko wax lu tax nit ku nekk xam nga la nga bonle da nga ko dul wax kon boog la keneen bon bonle jàpp ci sa njàmbur ana kan ci ñun moo mën a waat ne mosul def lu naqari yàlla kenn mënu ko kon boog ni yàlla àndeek ñun ci suturaal ñu nañ sur nañ nañ nañ noonu su fekkoon ne lu waay def yàlla wax ko wala mu def ko ci sa jéng ñu gis ko kon àdduna tukki waaye bëggante soppante ngir jëmmu yàlla ñu bokk nag ñaanal sëriñ bi jumaa maamam ji mu sumb ngir yeggale liggéey bi yàlla dolli ko cee jàppale ñu ñëpp ñu bokk ko fekke ànd ak moom mu jiite ko ñun ñëpp ñu ànd tabaarakallaahu ñu ngi ñu ngi ñaan loolu yàlla ñu ngi sant suñu kilifa yi muy sëriñ Babacar Mansour boo bëggul ko wax ci moom njëkkoon moo wax leen dara ci moom bëgg <laughs> ko daf ma ciy mere te daf ma rus nag duma ko wax waaye moom ngay dem bàyyi ñu ci suuf ñu ñuy xoolante yarqa درجات عالية بينه وبين الله لأنه صادق مع نفسه وحي كل الحياة بضميره الخالص الصافي barki démb dama fa dem barkaatu démb wallahi alim bi ma duggee fekk ko mu ngi toog nit dama ko gis rek sama xel dem sama papa Mansour dafa niru góor gi masul dañ di ko niru waaye léegi daf ko gën a niru ñu bàyyi ko xel te ñu bennoo jàppante bëggante soppante ngir jëmmu yàlla euh, maa ngi nuyu alxaaji mbay saaxo di sama rakk di sama doomu baay maa ngi nuyu alxaaji xabib saaxo di sama rakk di sama doomu baay wax naa leen mu ma mujj gisee sëñ Abdoul Aziz li ma wax ne dafa gis maam Ilimane Sakho nee na dafa maa ngi ko gis talaata àllarba alxames mu gaañu mu ne ma xaj Malik man daal dama gënt gis xulafa u cheikh yu bari maa ngi ci seen biir nag ñuy waxtaan daal di waxtaan ba yàgg Cheikhuna Tidiane ñëw na ñaanal ñu dem nee na am ci ku wax ci mbooloo xulafaaw cheikh yi ma ne ko ma koy kap ma ne ko sëñ bi ya mën a warmaal bay fàtte sa bopp ca nga bokk mu muñ muñam ko rafet ga sëñ Abdul Aziz moo baax mu yiw moo tedd wallahi la bisu talaata mu ne ma cheikh mu ne ma Alhaj Malick li nga xam ne moom la gis moo de daal bi ñu demee nag mu ne xaw ma nag dañ may jël si wala déet mën ah na ko assuñ mi na nag yaay wali yu bi man kat xaw ma ci dara ñun daal li ñu bëgg li ñu xam ma di ñu ñëpp nga bëgg ko yàgg fépp ci ba mu kanamu kanam rek mu ne ma ñu dem tuuti alaaj iliman saaxu ne jameet yëg si waaw ne ma doom tàllal sa loxo ma ñaanalu moo ma tax a ñëw damay damay daal di dellu nen mu tàllal sama loxo mu ñaan une heure mooy vingt cinq sëñ bi toog leen reer ma ne ko ma ne ko sëñ mën la def dafa baax ma ne ko sëñ bi dañu am yitte bu dox fekk ba may jóge fale sama kër Dakar nee naa maam Alpha nga baal ma téléphoné Mbay Lo ne ko maa koy ñaan ma ma ma kër gi féete Njaasaan ma wàcce fa waaye bu ma wàcc ci kër gi féete ak jumaa ji ndax il faut que nit bëgg ma nuyu te sama loxo dama bëgg su ma jógee fi ba ma yegtuwaat ci loxo sëriñ Abdou rek laa koy teg ziyaara ko radiyallahu taala an ñëw rek ndekke booba atalaata jooja àllarba àllarba ciy topp alxames mu dem yal na yàlla dool ko leer yàlla dolli ñu sutura yàlla dolli ñu mucc yàlla dolli ñu xéewal ba maxtaat kon boog ñu def ñaan mu laay ma bàyyi leen nag des na nag tuuti dem ko ci kanam euh, il il est deux heures et quart ah su su Souleymane ba sax wa Souleymane Souleymane Njege la ñett yoon laa ilaha illa allahu sayiduna muhammadu rasulullah def ko hadiya di rasulillahi sallallahu alayhi wa ak waa këram ak saxaabaam yëpp ak ña ña mujje julleek moom ci àdduna julli saba julli suba mu génn dem ci néegam yàlla dëkkal mbir mi ba yoor yoor xawee dem ba xaw sori yàlla ñu def leen ci hadiya ñoom itam ak ñi nga xam ne ñoo ko sang ñu doon sotti ndox ma ñoo doon rakk yaram wa sallallahu alayhi wa sallam ak ña gas bàmmeel ba ci néeg Sayyidatuna Aïcha ak ñi nga xam ne ñoo wàcc ci péeru ci bàmbeel tàllal seen loxo yi loxo leer yi ngir ñu teg ci sang bi sallallahu alayhi wasallam yëkkati ko ànd ak wormaal wegeel teg ko ci seen loxo ñu ànd ak orma ak wegeel ak ak xol yu tiis tëral ci suuf joxe loxo ñu génn leen ñu suur ñu daldi suur kenn du ci mucc waaye yonent bi sallallahu alayhi sopp ko rekk doy na cër te itam nañ koy jéem a seetlu rek di wét di ko xalaat di ko xalaat di ko xalaat dana am lu mu lay jëriñ wallahi alazim kana ñàkk kana xam mën naa am sax fu ngay dem léeg su soobee yàlla nga di ko gis mbir mi yépp a ngi xol jumaa ji nag Cheikh El Hadj Abdou daan na wax ni maa ngi sant ñëpp gërëm ñëpp léegi nag jumaa ci loxo ku mu tàmm ku mu sottee man Abdou kontaan naa gërëm naa kooku tey loxo xalifa bu tedd bi fi nekk di sëñ Babacar Mansour di suñu xarit bi suñu soppee yàlla na ko sottal ñu ko tàmbalee te ku yebbu nag rafet ci njort bu baax a baax a baax ñu dee rafet nañ njort te ñëpp ci war a gafen yortu ne yàlla dana ko defe noonu Abdourahmane kontaan na si kontaan na kontaan si kontaan na si Mam Malick kontaan si si Mam bi mooy doomu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum Sakho Sakho Sakho Sakho di suñu xarit fu ngeen mës a gis Serigne Cheikh di ñëw ci gàmm Sandakous moom mooy ànd ak moom góor bi sol jal baab yu rafet yi mu daan sol kii mooy rakkam di Abdourahman di doomu Serigne Cheikh samay xarit lañu samay soppe lañu noonu la ñu nekk xarit seen papa Serigne Baye Mansour macha allah sànq rek lépp maam Malick téléphoné yëg ne dañuy def waxtaan ki ñëw ci buur ci ci ci zawiya bi mu bég ci kontaan téléphoné ne bëgg na fi ñëw ànd ak Abdou Abdourahman Abdourahman bi moom la Serigne Cheikh tudde Abdourahman Sarr bu suñu bàjjan asu sey Malick Abdourahman mooy makku mooy rakku sëñ Saliou Sarr di doon denc soxna Xadi bu Serigne Babacar di ku baax doonoon xaritu ñëpp doonoon kenn nag kenn kenn ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum kon boobu def nañu ñaan yi bismillah amiin amiin allahumma amiin amiin Pape Diop ñëw na Pape Pape Youssou ñu ngi koy ziar. dafa ne ma Pape Youssou Diop ñëw na ma ne ko Pape ñu ngi koy ziar Pape Diop. ñu ngi ci ginnaaw Pape Diop Diop Diop. Pape Diop Diop Diop Pape Diop Diop Diop Diop. أكرم الكرماء من شك فيه فهو حلف الضلالة أفي الحق شك بعد ألف الدلالة تقدم ذكر مدى الدار يقرأ ألم تر أن الله آواه إذا بغاية محل الذي النوى فلما أبدل القرب من وحشة النوايا أفقنا به من غمرة الغي والهوى فلا الطب معدوم ولا النجم مرجوم ñol makka yaa leen gën ñol makka yaa leen ma alam tara anna allaha waaw id xawaay fan la woon bi gaari xiraayi lil maal alladi nawaay falamma udilla alqurba min waxshati nawaay afaqna bi afaqna bi أفقنا به من غمرة الغي والهوى فلا الطب معدوم ولا النجح مرجو kooku mooy sayyiduna Muhammadu rasulullahi minal anbiyaa wal mursaliina wa gayrihim minal muuminiina ruuxu aslu nashati borom daara ji nee na sayyiduna Muhammad fa man lam yanal min saqi baata mulxidan wa aasha saqiyan kaafiran kulla daawati fa hada rasulullahi fa hada rasulullahi fa hada rasulullahi wa sanadu lladi moom yonent bi shafaatu turjaa gadan yowma rëhbati fa hada rasulullahi wa sulamu lladi bi yartaqi l abraaru sayran li hadrati fa hada rasulu lilbariyati kullihim saadatuhum wa fawzuhum aynu rahmati fa hada rasulullahi wal akmalu lladi fama ramaqat aynun shabihan li rawati هذا رسول الله والمنبع الذي فيوطاته تجري إلى يوم النفخة فهذا رسول لن ترى العين مثله من الخلق والخلق فأكبر آية كنا قاني فيا ربنا في أرضه وسمائه ينندي ñun ñëpp amit na ala tasdiqi bi shifaihi fa inna wadul aswaaqi yaa yaa bidaayi yasuqu alayna alxaysu duna liqaayi ida diinu lam yakmul fala kaanat dunya waaw ah kilifa yi dañu yegg si wax ni daal ñu bëgg a tàmbali su ko defee wala ñoo dugg ca biir sëñ Lamine Gueye bu boobaa mu barkeelu tabaarakallaahu mooy suñu magu daara di suñu magu yoon ci yëf yi e, su ko defee rek ba sëriñ kër Cissé waaye yéen ñi ci kaw ngeen sëriñ bi ne ngeen déglu tuuti sëriñ Babacar Cissé bu sonumul xayri tabaarakallaahu bés bi muy def woy juróom daan ko def ca Thiès sëriñ Alaaji Cissé daan jiite jumaa ji ndeysaan yal na yàlla dolli leeram eh, mu war ko def le 12 novembre incha allah ca Thiès ca kër ga bu ko defee mu ngi ko yëgal mbokki taalibe yépp nag mobilisation générale incha allahu suñu jigéen doom suñu jarbaat di suñu sëriñ soxna umul xayri bu soxna asi bu borom daara ji bu sëriñ Moustapha bu sëriñ Cheikh al Maktoum faawaatu wele fondation bi dañuy def seen journée le 6 novembre sëriñ bi ne woon na nañ ko fàttali mbokk yëpp fii la koy defee nag ci salle Seydil Hadji Malick bi wala relancer waat activité yi ñëpp bàyyi xel bis boobu ñaari bés yooyu semaine boobu le 6 euh, ca topp le 12 ñëpp ñëw ca incha allah kon nag bismillah ñu ngi ziar baax si Malick si ngi ziar si. si bay si si si ñu ngi ñu déglu sëñ Moustapha gàmmu ndi fiif Modou Sarr mu ngi koy yëgle alaaji Baara Sarr ca góor gi Malamine Sarr nee na bii di ñëw la Seydi Hadji Malick ko joxoon ndigal bu tuddee samedi ba ca topp mu ngénte kon nag di fiif mu ngoog na ko ñépp bàyyi xel ñu déglu sëñ Moustapha aoudu billahi min alsheytani irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi wa sallallahu wa sallama ala almabuusi rahmatan lilaalamin sayiduna wa nabiyuna muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi salaatan tuarrifuna biha iya mbokki yi fi daje sunu wayjur yu tedd yi sëriñ Sidi Ahmed bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh radiyallahu anhu ñu ngi lay jotal nuyoo xadara bi ci ndigalal sëriñ Mansour mi nga toogal di sunu baay di sunu mag di sunu goro di ko wax ci yéeneem waaye yéeney mbokki taalibe yi fi daje yépp compte rendu bu gàtt lay doon pour wax rekk jéego yi nga xamante ni dox nañ ko booba ak léegi ci ndigalal sunu woy woyjur wële di Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général de Tidianes ci ndigalal rakkam ya Serigne Haj Malik Abdoul Aziz sëriñ Babacar Sy Mansour moo waxoon ni nañu dem ci kilifa yi wax leen ni ren fas na yéene taxawal guddi gi di gàmmu di mawlidu nabi sallallahu alayhi wa bi mu ci joxee ndigalit nu dem ci administration bi man ak sëriñ Habib ak sëriñ Mansour mi ca intérieur laata moom ñu dem ca préfecture bu Tivaouane ànd ko chef de service yi nekk Tivaouane yépp ba ñu fa jógee jàll ba au niveau régional avec le gouverneur euh, Seydina Ali Mbeng moom it mu def li ko war au niveau régional doog ko jébbal ministre bi ci ndigalal président Macky Sall ak premier ministre Amadou Ba gouvernement bi yépp bépp departement ministériel bu am wàll ci gàmm gi foog naa ni def nga ba def lu nu seenu wul woon ci ay taxawaay ay warteef te sax du warteef waaye nit ki saa yu demee ba jël warteefam def ko mu nekk lu mu mënta bàyyi kooka wax dëgg yàlla war nañu ko wax jaajëf wax nañ ko sànq sëriñ Mansour bi mu teewee ca réception ba xanaa daal li nga xamante ni xëy na bu fekkee ni tache bu noir la ci gàmm moo di Tiwaawan amul ndox ndox dafa manqué ci dëkkuwaay yi lay sabab ba nag mooy xam naa réseau bu xaw a màggat ba yegg ci foo yokkee mu toj ay foo yokkee rekk dana toj ay tiwo def na ko démb def na ko tey loolu nag xam naa du ñàkk bu nu jógee ci lii danañ ko gaar maire bi di El Hadji Demba Diop rawatina kilifa yi nga xamante ni ci ñoom lay jaare jàll ca ñoom préfecture ak gouverneur ñu xam ni warteef jot na ci dëkk bi ñu changer système bi nga xamante ni moom lañu fi indi ndax quartier yépp a jàmbat ndox te ku ne xam ne ne ndox bu amul ci gàmm rekk am num ca yàq waaye yàlla rafetal na ko ba tey ñu ngi ci mujj gi yàlla na yàlla dolli ñoom ñépp nag ñu sant leen sant leen ci seen taxawaay sant mbokki taalibe yi jóge fu ne xam naa cant googu sax yéen ko moom waaye dañu koy jiital rekk wax ko waxaale itam lenn mbokk taalibe yu bokk ci fii te bi ñu tuddee warteefu mawlit bi def nañ ca def ca lu leen war lu leen warul tàmbalee ko ci maire bi El Hadji Demba Diop Sy naka jekk daan na ko def waaye bi mu nekkee maire da ko yokk wàññiwu ñëw ci soxna Zeynabu Gaye ture naka jëkk daan na ko def waaye ñoom ñépp bii yoon dañoo wax ni gàmmu exceptionnel la tabarakallahu ay mbokk yoo xamante ni kenn ku ne yëg nga rekk ni kilifa gi joxe na ndigal nga ñëw indi sa barkeelu kenn ci ñoom di sunu turandoo wayjur sëriñ Abdul Aziz Njaay boor na ak téeméeri nag ak fukk ak ñeent ma ni ko xanaa danga koo natt ci kaamilu alquran mu ne ma su ma mënoon junni danaa ko def ngir dabu wëllëre maamam aalima jigéen ci sëriñ Babacar si ak taxawaay ya ko war jëmale ko ci gàmmu gi ndax téeméeri nag nag ak fukk ak ñeent ku ko def xam nga ni jàmbaar nga ñu ñaanal ko yàlla moom ak i mbokkam sunuy mbokki taalibe naka jekk bu gàmmu jotee ñu ñëw ñii ñu nga indi ceeb ñii ñu nga indi ay koppar ngir bëgg xadara bi am sakk Seydil Hadj Malick am sakk ci guddeem gi danañ ci tudd rekk lenn na ti mbokk ku mel ni kii alxaaji Mot Silla alxaaji Maxtaar Siise kenn ku nekk def nga lu nekk dimbalee ko taalibe yi waaye dimbalee ko njabootu Seydi Haj Malik alxaaji Maxtaar Njaay al Amin moom it tabaarakallah lu jëm ci liggéeyu communication ànd na ko sunu mbokk maam Omar Njaay def lu ko war ba def lu ko warul tabaarakallaahu lu ne mu indi ko wane ko ngir ñu am sag ci guddi gi niki noonu sunuy mbokk xaj Moustapha Ndiaye yónnee na fi ceeb yónnee fi ay koppar Moustapha Ndiaye xam nañ bu baaxa baax cofeelam ci sëriñ Mansour mi ndax woy juróom Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha mooy sëriñam di wasilam waaye cofeelam da ko yaatal ci ñépp ba bu jotee ku ne dana la yónnee yóbbanteem lenn ci mbokk yoo xamante ni El Hadj Ablaye Ndiaye ngalgu ñoom it lu ne def nañ ko pour bëgg rekk sag bi gëna a sampu ñii ñu nga ca ñaar fukki nag ku mel ni Jóob Simi El Hadj Ablaye Jóob sunu général di généralu kër gi rawatina Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ñoom ñëpp indi nañu seeni yéene sunu mbokk alxaaji Koli Jéey ci Amadou Jéey alxaaji Abdoul Aziz njaay yónnee na fi lu ne ci produit alimentaire yónnee ko ci xalifa bi ci soxna yi yi yor waañ wi tabarakallah ak mbokki taalibe yi lu ne taxawal nañ ko ci ay waañ pour bëgg rekk gàmm gi sagu te yaakaar naa ni ku xool ni mu deme xam nga ni sagu na waaye ñoom ñépp nag kenn taxoon ñu di ko def mu di boroom mi waxoon ni fas naa yéene ëllëg bu ma koy defati ku ma am doonte la yaa nga jóge ba buur saane ca jolof nga ñëw fekk si mu fent bis bi baaxe nu ko nun mbokki taalibe yi baaxe ko waa senegaal ba tey ñépp jël ko muy seen aada bu juddu yonent bi jotee ku ne di célébrer yonent bi di célébrer li yàlla dogal ci moom di selebre mbaax gi mu yaatal ci moom la boroom mbind ma waxoon ni jamaa alfadail kullaha walmahamida bi akmaliha ilayhi intaha al bir wa fihi taassalu alxeyr wa ala yaddayhi faada nuur moom sallallahu alayhi wa sallam loolu la ko yàlla defaloon lépp daje ci loxoom yàlla def ko muy tànneefam baaxal li mu baaxal ci moom ñu bëggoon rekk wax leen ni gàmmu gi daal mbokki taalibe yi bàyyi ko ak sunu wayjur ñoom ñépp ku ne jël nga ci sawal seeni njaboot daayira yi fédération yi tàmmalee ko ci daayiratul kiram daayira ahmadiya juróom ñaar fukki fédération yi union des daayira tijaan de seydi jamil kenn ku nekk la def nga ko ñu nga ca sunu mbokk ma sëriñ Habib wax na it xalifa bajaan waaw sunu doomu bay sëriñ Habib Kane yónnee na fi vingt quatre bëf yoo xamante ni moom it daf ni kenn du ko bàyyil di maire ci Thiès tabaarakallaahu sopp sëriñ Babacar tax bi mu dikkee daf ni daal nun daal lu nu amul def ko ci xaqu pénc mi xanaa loolu dafa nekkul ci sunuy poche waaye lépp def nañ ko ci ay ndimbal xalifa bajaan yónnee na fi ay koppar ca kër ga jigéen ñi ku ne dimbali na la fa tabarakallahu mënuñoo lim ñépp waaye ñoo xam ni daal mbokk taalibe yi jël nañu pastéef ci ànd ak moom ci lii pour sagu kër gi di samp ba faw loola nag yéen moom ñaan yéen moom dénkaane seen maam ju tedd yi lu ngeen leen wax ñu def ko rawatina seen bàyyi ñu boole leen ak ñoom ngeen ñaanal leen kenn ku nekk yàlla sampal la sampu teraanga bu dootul sempiku ak barke ak sutura te nu fekke ko téeméeri at ca kanam te lépp rafet sëriñ Sidi ñu ngi lay bëggee lool te di la wax dalal jàmm ci sa kër dalal jàmm ci sa njaboot dalal jàmm yàgg sa eh, mag sëriñ Mouhamadul Mansour di kenn ci kër gi ndax fii péncam moo ko moom sëriñ Babacar si Seydi Jamil fa tabarakallahu mu mag tey ci ñi mu bàyyi kon mooy xalifa sëriñ Babacar nun ñépp nu ànd ak moom ci loolu rawatina sunu ñaari mag yi sëriñ Babacar sëriñ Cheikh Tidiane si Mouhamadul Mansour ak mbooleem rakk yi nu am ci kër gi xalifa bi nii mu doxale sunu wayjur wa Cheikh Seyd Ahmed Tidiane moo ko doxale woon yabal sëriñ Papa Malick si yal na yàlla dolli ko leer te taas ñu ci barkeem mu ñëw di ko teewe ca zawiya Seydi Hajj Malick ba mu demee ba yàlla dogal mu dem mu di la yebal ca zawiya ba yàlla def tey li mu def fii ci pénc mi mu ni kon nag nga toog ak sa rakk waaye sa baay sëriñ Sidi Ahmed mu wéttal la ànd ak mbokki taalibe yi rafetal ko yàlla na yàlla gën a dolli seen wér te bàyyi leen ci sunu kanam loolu rekk moo mënul woon ñàkk ñu wax ko waaye sant nag boroom réew mi le président Macky Sall ci yéeneem ci bis bi waaye rawatina ci Tiwaawan bërki démb bi mu ñëwee tudd na ay tegtal yu mu wax ni dana ko defaat ci dëkk bi ngir bëgg rek mu gën a yomb ci nit ñiy ñëw ndax dëkk bi it daf di dëkk boo xamante ni lu ñu fi def lu ne yell na lu ñu defal alaaji Malick ci dëkkam bi yell na moom nag soloo na ko fas ko yéene def kon ñu ñaanal ko yàlla na ko yàlla mottalil yéeneem daan naa ko wax ma nettali ko ko mu ree ba tey ma ni ko keroog bi nga nee danaa def Tiwaawan ay infrastructure bokk naa ci ñi ko njëkk a dingat ndax ma taxaw fii ci pénc mi ni soxna assu si soxna assu kan bu sëriñ Babacar daf daan wax ni teraangay dinaa la yàkkal uuhu doy na ci ba keroog ngay gis yàq ba ma ni ko ba ma ko waxee it ah dama foogoon nii diggee yi daan am la rek waaye ndeke booba diggeeg jëf la ànd ba tey tabarakallahu mu def li mu fi def amaat na yeneeni yéene waaye yéene yi mu am ci dëkk bi li ma wóor ba wóor mooy lu mu fi defit seeni boroom fay ko ko ca na mu gën a mate ca na mu gën a rafete ko defee sëriñ ngeen jotal ko cantu mbokki taalibe yi jotal xalifa bi seen yëg-yëgu ñaan bu ñu ko dëkkee saa su ne ñaan yàlla dolli wéram sawaral ay cëram bàyyi ko ci sunu kanam may ko mu liggéey li mu bëggoon a liggéey yeggaleel mag ñi seen naal nun ñépp nu duggaale ci ndamam yàlla na ko yàlla def wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. حملت بدرا سيد الأمم خير الأمم حيتي للثمان فتغتني tàcc فاغفر إلى تلحق ملك الجبار وصلي تنر في مسراه فقنا فقنا بي بجاه وبي جزاء عنا الله بار النسم نحمدك اللهم ذا النعماء يا باسط اليدين بالعطاء ودافع القروب والخطوب حنا لنا وساتر العيوب مما به أنعمت من آلائي تفضلا بدون ما استثنائي شرح جبعي سنة أكرمي من سجن عمولي أنا البرايا والد البتول الأنباء المصطفى بعد الأواخد الأنبياء أكرم بي من شافع مشفع عند شداء الأهل يوم الفزع أكرم بي من منقذ نعيمي أكرم بي بما جاي سيد الأولى سبحانه ما عرف الإله سبحانه ما عرف الإله سبحانه ما عرف الإله عرف الإله كرم من رحمة مهداتي نبي موي سيد من مضى ومن سياتي للخلق كافة بلا استثناء من ربنا القديم للبقاء أكرم بي أكرمي من ماجدي موي سيدي كل راكع وساجدي أكرمي أكرمي من ناصري سيدي كل راكع وساجدي سيدي كل راكع وساجدي سيدي كل راكع وساجدي سيدي كل راكع وساجدي وساجدين أكرم من أمر بالهجرة رب الورى ليلا لدار الهجرة من مكة مع رفيق القريم حبيب المعروف النعم الكريم من مكة مع رفيق القريم صديق المعروف للجاه العظيم وامتدى الأمر كما به أمر بدون تصويب فنعم ذا الوزر خرج الماء الغاري في عز مولاه علي الستار حفظ العديد حتى وصل ليثرب هناك نال الأمل لم يلقى سفري خير البشر سوى الذي يسر بلا ضرر لم يلقى سفري خير البشر سوى الذي يسر بلا ضرر لم يلقى سفري خير البشر سوى الذي يسره بلا ضرر ومن ثمانية أيام قطع صلى الله عليه وسلم تلك مسافة النبي المتبع خرج ليلا معه للغار في ابن مولانا العزيز الستاري Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Malick ne akrim man amarahu ilaahu بنفس ديني ليتداه دين لنا سواه ليس يقبل عن ديني الذي تدا لا تغفل كما أتى أبيس العقود على لسان حبي المحمود ونجري قد وجود العيلمي الشيخ تجان شيخي أبي العباس بحر الحكم ومد كل أولياء الله من فيدي ترا فيا لله بصاحب القدم المحمدي ترسنا خالق كل شيء ما لم يكن لغيرنا جازاه عنا بجايجته مولاه وبالنا قبالنا قبالنا فابشروا وابتسمت لي روضها الأزار وغردت بحمدي لغات وخشعت بخوفي الأصوات وطاب بالبيت العتيق الحاج ونال من مولاه ما يحتاج واستوى الأوابل ساري تعبدا للواحد القهار كن الحمد لله والحمد العطا والبقيع ومن به قد هجاجل سواق نحو حماه بلد به كل الفضائل جمعت تلك المدينة لا أقول سواها فيها والله نصر النبي وحباب أعظم جام مدلم وبدا بها نور الهدايا ساطعا يمحو ظلام شرك من أنا يا نبي مهاجرا لريابها فتعطرت بغضومي أرجاها أكرم بها بلد بطلعتي صمت والله شرفها بأحمد طه والله رفع بها مدى طه والله شرف بها مدى طه محمد صلى الله عليه وسلم فتلألأت كل الدنا بسناها كم جاء جبريل بين ربوعها بجواهر تنظيل ما أغلى واغتشى ربي بالروضة جنتي يا حبذا لو أنني أغشاها تنويعا برفقة قدرها محمد الأمين صلى الله عليه وسلم يكفيك دفن محمد بشرى طابت لطيب المستوى ولطيبها رب العنام بطيبة سماها الخير بين قبابها وبقيعها القائل فلا تتناهى فصلى يا مصام بهمة لتشم طيب من عبير شرى وكجب وإذا وصلت إلى الضريح المصطفى والنفس قد بلغت هناك مناها quli salaamu alayka yaa xayra alwaraa wasali ilaa shafaa dunduta xaalib awaaka wa qum ilaa الحمى وصل حسن ختامها وهدى ثم صلاة مع سلام هدية ما دف كونغير مصطفى ولعله الحمد لله الحمد لله sallallahu alayhi wa sallam jarna way jarna kañ jarna daw ba dee jarna yenn mama doomi amina jaag abdallah yaa leen gan sallallahu alayhi ta'ata ila rasul sabila fatu shahidan ma'muna wal ma'mula وبرسيا من نوره إكليلا ولد بي بحر شريع قطما عم البسيط تتعرض وطولا ولد بي ذات النبي محمد المصطفى ولد الوضع فالكائنات ضياء وفم زمان تبسم وثناء مظلم الروح والملأ الملائك قوله للدين ودنيا به بشرى والعرش يضوى العذيرة تستدعي من مظلم صلى الله والمنتهى شدرة والحسن منكر من وجود وغيره ما أوتي الغفران والزعماء فإذا سخوت بلغت بجود المدى وفعلت ما لا تفعل الآن وإذا وحد فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفك الجحلاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما رحمان الصواب إذا غضبت فالارتياح كأنما تعر الندي وللقلوب بكاء بك بشر الله السماء فزينت وتداوى عن مسك بك الغبراء وبدا محيا كالذي قسماته حق غرة هدى وحياء عليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهديه ما أثنى المسيح عليه خلف سمائي وتهللت واحتدت الأذراء ويوم يتيم على زمان تصابحوا ومساءوا بمحمد والضاء الحق عالي ركن فيه مظفر في الملك لا يعلو عليه رواء زعر العروش ظالمين ذو ذلل على الاتجان ما الضاء والنار خاوية الجوانب حولهم غمض الضوائب وغاد مصطفى ومجبي مدنة والآية تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غضاء والنعم اليتيم بدا مخايل فضل فليتم رزق بعد وزن العذب في المهد يستسقى الحياة برجائه وبقصده تستدفع البأساء بسوان بالسبا وسرق اللم يعرف أهل السرق والأمناء يا من له الأخلاق ما تهوي العلا ظمأ وهذا منهل الأعظم الله وهذا باب مولانا وهذا مورد الأطيب حبيب الله نور النور كنز السر والمطلب ألا يا خير مبعوث له مولاه قد قرب إذا استنصرت فانصرني ومن تنصر لا يغلب محمد الأمين صلى الله عليه وسلم قل لي أنت في جاهي سكت فيه فلا تخشى ولا تتعب الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله باي فات بنت jëddul xuseenu ku tabe la gaana ci naat di ay may rasulullahi bàyyi faatu bintu jëddul xuseenu ku tabe la gaana ci naat di ay may xanaa man day dama waawe bi su tey fii سيدنا رسول الله أيوة خنا من دينما قرأ بالتيفي سيدنا رسول الله أيوة صلى الله عليه وسلم رسول الله باي فاطمة بنت jadul Xuseynu ku tabalata gaaw na ci naati ay may rasulullahi gën ji mbindéef bi ku lay way du maytu fen te wax jëlu way wa rëy rëy sallallahu alayhi wa sallam su ne yaa tax ñu sos xiin ak nawet yebal dën بلغت للرأي رأي من صلى الله عليه وسلم سنة يا تخ نصص خيم أغنيت يبل دن تكمل خدي رأي رأي المصطفى سنة يا تخ توبتي بوكي تيبال saxal am ñax saxal gàncax bu ñuy béy Muhammadul Mustafa su ne yaa tax ñu góob ci dugub gi nabi yaa tax ñu dëq ci gerte gi am xaalis ci say bay المصطفى صلى الله عليه وسلم سنة يا تخ يصصن روحي روحي يا تخ ما يبقى في والله يسكي looy mën a am ci yàlla du kon yow mi du kon am loole moo tax yaay yooy عليه وسلم فذلك كل عقل هذا نتجمع ملائكة يبهري وي سنارنا دي وخ رينا كان نقوى قدر العصدين sëyidan bu dee amran murid jay ji wax suñ kan may wax cam suñu yow da kon mu alak ka ji way ak ka kay way asiyidana rasulallahi inni la muftaxirun dama is gawal bi lay way nañ bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy nee na nañu sopp Rasulallah sallallahu alayhi wa bëgg Rasulallah te mooy ci sunnaam bu baax fuñ tollu tey ko doxal xubbu nabi Rasulallah xayru fidaa العب يوم الجزاء بمدان يوم جهر شفيعه شفعه فينا يا رحيم هو نجنا لك يوم اللقاء من هولي وإقابي شو الحاج أبعي سنين الله تعالى يا سيد أسر الكرام وأتاجهم من خصه الرحمن وحسن ثنائه جي وعيف ابحث تجري بنوني سطر الهدي أدخل في تنزيلي شهد بايسنا وبشر داع لعبادي بخيري طبع شهادة ولا طافة وبخيري بطنه للمن وحكمة فهمه سر قلبه الرحمن جل باري ذو الجلال والحجر صلى سلام عليه ظل القلب زاكن حسن للعقل فاكن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد أيوة كن طبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت حبيبي وأجرني من الليل إن أوزار السيئات أصحاب المعصوم يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بي بفضل المنير نوايا محمد المنصورنا ولولاه لم تدري الخليقة قدره يا أحمد صلى الله عليه وسلم فتح الله الكنوز البواديات لم يقرأ له قد السائل علمت لا ليل علوم مثيلا أن محمدا رحمة للعالمين بمحمد نور الماء منخ لولا ما علم الفضائل الفاضل خير سلاي عبد الرفيق ساد كل الورى هو المنتهى وبخرا وسودا محمد هو المرتجى يوم يجيب اسم ربكم صلى الله عليه وسلم حرور ورحمن كان مناجيا waan ñaan ci maam Tafsir Sakho ak ak ñu jàng faatiha teg ci benn peru salaatal fukki qul huwa allahu ahad ak benn bu jàng ñaan bu ci ne ànd ak bismillaahi rahmaani rahiim ak juróom-ñaari inna anzalnaahu ñu wuutu ci nag sëñ Babacar Mouhamadou Mansour ak njabootu xadra bi ak rakkam yépp ñaan yàlla ñu def ko hadiya ci yonent bi sallallahu alayhi ñuy jàng te yool buñ ci yaakaar ci yàlla te yonent bi nekk ash-shafiu wala shafiu mushafau di dox diggante nit ñi ak yàlla yàlla na yàlla nangu ñaan gi def ko mu yiw yërmande tedd nga teraanga njëggal ngërëm digal yonent bi sallallahu alayhi wa mu joxal ko ko sunu maam alxaaji ilimaan saaxu ak baay alxaaji ibrahima saaxu ak mbooleem njabootu maam Ilimane Sakho góor ak jigéen mag ak ndaw te jotal yool bi itam sunu baay sunu baay alxaaji tafsir Sakho sunu baay sunu sëriñ sunu lépp xam ni moom gannaaw bi baay alxaaji Ibrahima Sakho demee su juumul ne 1994 la ne at moom fekk na ko Paris. sëñ Mansour digal ko mu dem wuutu ko ci fat Fatsi Mansour bu mu dem faju ji ñu am Paris fukki weer ak benn ne defe naa dem ak góor gi Baye Ibrahima Sakho sorewul ak gàmm ga une semaine moom la sëñ Habib fa la fekk mu nekkoon ak naq sa bu mag ci noonu soxna fat si métti lu ko lool ba fàtte feebaru bopp ndax valeuru baay Ibrahima Sakho nee te lu jiitu baay alxaj <laughs> Ibrahima Sakho dem ñun ñi kër sëñ Mamoun Ndiaye ñun ñii ca kër sëñ Mamoun Ndiaye ak Babacar Mbaye ñang saaxu ak man mii xaaj daaw góor ak sëñ Mansour si Jamil maam As Jamil sëñ Babacar Jamil ak këru daara ya ca Ndar ak feneen nekkoon ci keppaaru góor gi xaj Maamun Njaay baay alxaaji Ibrahima Saaxo ñëw xaj na xaj Babacar wàcce wàccee. Baye Alxaaji Ibrahima Sakho defal ñu feet gu rëy ca Ndar. Baye Alxaaji Ibrahima Sakho dafa ñëw. defal ñu feet gu rëy ca Ndar. ci la moom mi mo sëñ Mansour ne ci la jëkk sole dàllu mokansin. ñun ñëpp sax waa daara ñun ñëpp waa daara ji yëpp. Baay Alxaaji Ibrahima Sakho ñëw ca daara ja bi sëñ Babacar mi wàccee alquran al ñëw solo waa daara yépp kenn desul nag gàmm fa nag gàmm gu rëy ña sëñ Habib ak sëñ Babacar Sakho ak daara ji waa kër Baye Alaaji Tijaan Ñang Cheikh Saad bu Diop Ngumba Xaaji Maajoor Cissé Cheikh Mouhamadul Moutada Mbacke. Cheikh Cheikh Seydi Mouhamadul Moutada Mbacke. waa suñ suñ ñaari doomam ña nga fa woon Moustapha Mbakke ak Abdou Khader Mbakke nday Xadi waa kër Baye Alhaji Abbas Sall waa kër Baye Alhaji Abbas Sall Hamid Fall Abdou Hamid Fall Alhaji Dam Sarr sëñ Birahim Diop yi ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ña woon ca daara joo ci sëñ Maamu Njaay waa kër Alhaji Omar Diallo Imam Ratib Bakumba Njaw maam Ahmed Bakumba Njaw baayu yaay soxna fat ba ay doomam ña nga fa woon rama ba ak Boubacar ba ñu naan leen rama taal ak Boubacar taal alxaaji daaw góor mi ma nga fa woon boobu Abdou Aziz mi ñëwagul ndar oh, ak Cheikh Lo magu kenn desul ñëpp kenn desul ñëpp nga fa woon. mu nekk fête gu rëy ci mu nekk nag fête gu rëy ci ñun. moo tax mu dem ba am soixante dix ans. moo tax mu dem ba am soixante dix di fàttaliku loolu. Hmm. ne fàttewu ko de. kon Baye Ibrahima Sakho. dafa nekk. dafa nekk. wurus. ngalam wala jamaa. bu yàlla def ci sunu xol. te boobu xamuñu sax. te boobu xamuñu sax. maani. maani. la muy firi. la muy firi. ndax la 31 décembre. ndax le 31 décembre. Baye Abdoul Aziz Dabakh. Baye Abdoul Aziz Dabakh. moo daan gàmmu gàmmu gu rëy. moo daan te bayaalu te njigéen. Baye Alhaji Ibrahima Sakho moo ko daan gàmmu. Baye Tafsir nekk ci wetam. Baye Tafsir Sakho nekk ci wetam. ak ñi ko doon woyal ñëpp ci suba sa premier janvier Baye Abdoul def conférence ci même bayal ba ndar fees del kon Baye Tafsir mi ngi ci ñaan gi mësul génn keppaaru magam jooju ba tey lu jiitu moom muy dem moom la Cheikh Seydi Aboubacar daan àndal gannaaw alxaaji Habib Sarr ba mu jigi bàyyi alxaaji tafsir xaw a jëm mag bàyyi alxaaji tafsir xaw a jëm mag sëñ Babacar Mouhamadou Mansour ji alxaaji Souleymane Ba jarbaatam bi alxaaji Souleymane Ba di doomu Safiyatu Si ñu naan ko Safiyatu Ñang Si bu sa bu bàyyi sëñ Bachirou si xam ne doom la ci Cheikh Seydi Hadj Malick di sunu sëriñ ñun ñii sëñ Babacar boole koog ñun ñi dem Italie dem France dem fu ba fan yi moo doon gàmmu gàmmu ga ba ñu ñaanal fa bal Hadj Tafsir te gàmmu ga kat ca Paris daayiratu mutahabbina fillah Baay Alxaj Tafsir lu ñu tudde woon gàmmu ren ga gannaaw bi ñu toogee ñaari at covid bi tax gàmmu amatul woon ba ni yàlla dogale mu oyof daayira yépp ñaan xalifa bi defaat ko ren xalifa bi yabal ñu ñu ànd ak xaj Souleymane Ba daldi fa dem ñu ñëpp fa tabaarakallaahu kon nag Baye Tafsir mi ngi ci ci xolu ñaan gi ci biir njabootu Baye Alxaaji Ibrahima Sakho Baye Alxaaji Badara Sakho Baye Alxaaji maam alxaaji Ilimaan Saaxo ak alxaaji Malick Maodo Saaxo nga xam ni moom la góor ga tudde woon Cheikh Seydi Hadji Malick doomu baayu Cheikh Ibrahima Saaxo la di rakku Papa Mbay Saaxo mi ak sëñ Habib ak Papa Ilimaan ak Xaasim ñun ñi benn famille rek la mosuñu taqaliko fa tabarakallahu kon nag ñu jàng ñaan gi ñaanaaleel ci Habib Sarr ñaanaaleel ci ci Maodo Mbaye Ñaama ñaanaaleel ci Maodo Mbaye Ñaama Maodo Mbaye Buri Buri Mansour Mbaye Babak Habib Dieng góor gi bi ak ñi jiitu ci mag ñooñu nga xam ni ba ñu fiy way xëy na ñun ñi ay ñaari at ñetti at la ñu amoon waaye wuutu nañ leen gën gi wuuti win lu doon dëgg rek. lu doon dëgg rek. te yàlla rek tax. day sax. maa kaana lillaahi daama wattasal. wa maa kaana li gayri llaahi inqataa wan fasal. te bi maam Maodo demee. lu jiitu mu dem. maam daaw góor moo daan woy. Musaali moo daan woy. maam Musaali moo daan woy. tey jii yéenay doom ak sët sëtu mag ñooñu. tey jii ñooy doom yi ñii di sët ñuy woy ñoom it. te ñoom ba ñu demee ba mage. te ñoom ba ñu demee ba mage. Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz moo doon woyal sëñ Babacar. Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Dabakh moo doon woyal sëñ Babacar. ak sëñ Moustapha Sy Jamil ci gudd. yu mel nii. ci jumaa ji sëñ Babacar di rafaatal. jum ci jumaa ji sëñ Babacar di rafaatal. sëñ Cheikh Tidiane si almaktum bés nee na. sëñ Cheikh Tidiane si almaktum benn bés nee na. sëñ Babacar si dafa toog. sëñ Babacar si radiyallahu taala anhu dafa toog. turandoom Baye Alxaaji turandoo maag alhaji Mansour mii di sa mag. waaw moom di di sunu turandoo maag alha moom ak alhaji Mansour Mbaye mii di sunu mag. sëñ Baba sëñ Baba sëñ Cheikh ni. sëñ Cheikh ni. seen baay Abdoul Aziz yooxu. sunu baay alhaji Abdoul Aziz dal di yooxu. xaaj tabarakallah ca baat bu neex ma nag di way machaamu maqsaduna kallaa wala xalabu laakin li makkata fii naa turxalu nujub nee na nee na Cheikh Seydi Aboubacar Cheikh Seydi Aboubacar gestu gestu Cheikh Alxaaji Mansour Amadou daal ni Cheikh Alxaaji Mouhamadou Mansour Amadou radiyallahu anhuma wa anhum Abdou Aziz sunu rakk ji daal bis bu ne yàlla won ñu ci moom yàlla won ñu ci moom ay ngëneel ba ci way yi muy way ni yoo xam ni day mel na Cheikh Abdou Aziz gan la ba léegi ci ñun gan la ba léegi ci ñun yi bés bu nekk nga ngëneel yi bés bu ne day am xar kanam bu bees ba ci nii muy teggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp dem nañu yéen ñii yéen a fi des nag amin yaa rabbi yàlla na ngeen fi yàgg téeméer ne yéen ñëpp yéen a war ñaanal mbokk yi di tagg yonent bi yàlla na ngeen dem ba. yàlla na ngeen dem ba. di wax di wax. ca gannaaw rasulullah. ca gannaaw rasulullah. nii rek lañ koy defee ba àjjana. nii rek lañ koy defee ba àjjana. yaa Muhammad yaa Habib. waaw waaw. nii lañ koy waaye ba àjjana. kullawoo. xayral bariya mudrikal yaa. lañ koy waaye ba àjjana ku woo ay waay xayral bariya àjjana doo wopp doo ragg doo màggat te du la aar doo dee doo tooxu gi kër kenn amul lu ko jar àjjana ku woo ay waay xayral bariya mudrikal ya zeyna waay Cheikh Omar Cissé. ak ñi ngi fàttaliku kenn muy Cheikh Omar Cissé ak Habibou Dia Mori Diop yal na leen yàlla Mori Diop Rawdu Samb fa tabaarakallah Baye Alxaaji Mbay góor gi Paate Mbay mag ñooñu ñëpp Maodo Sow Maodo Sow tabaarakallah Mansour Ndiaye mhm. ba tax na ba tax na xaj Souleymane xaj Souleymane docce alaaji gay alaaji gay alaaji gay mi ngi dund ba alaaji euh, papa bismillah xaj Souleymane waaleykum jàng leen ñaan gi jàng leen ñaan gi waa ma ne amin sëñ Abib Sakho mu tëj ñaan gi amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin atubu bi fadlillahi minna ilayka ya rasulallah jazakallahu anna sayyidina wa habibana wa shafiana wa rabbina wa mawlana alhaaj malik radiyallahu anhu wa ardaahu wa اللهم بلغ صواب ما قرانا وبركة ما تلوناه ونور ما تلوناه من كتابك العزيز يا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 Seydi Hadj Malick wax na wax yu rëy ci yow tey ñun ñëpp suñu yaram dafa daw boole may wéer bàyyi nu fi ba ci kanam a kanam ci barke yonent bi allahuma salli ala sayyidina Muhammad ji itam yàlla taxaw ko may ko wér mooy sama xarit man Sakho waaw sama sama copain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 wa saqaahum bi kësil unsi baadama sharafahum bittadaani xamda abdin muctarifin bil ajzi an ilwafaai bi shukri nicamihi allati laa tuqsaa bi adad wa kayfa la acjadu an qasriha wa hiya daaiman mutaraadifatun calaya wa ala alxalaa'iqi tula al abad wa usalli wa usallimu ala alwaasitati fiha lil anaam شمش المعرفة الباذغة في أفق المكونات لاستنارة كل ظلام سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورضي الله تعالى عن صاحب الفيض والختم والكتم اعلم أن للإنس مشايخ وللجن مشايخ وأما أبو العباس أحمد التجاني فهو شيخ الكل is maa rafaa almustafa qadaman illa wada ahmadu tijaani qadamahu min xaytu rafaahu almustafa wa radia allahu taala an sabaaqi algaayaati wa saaxibi alaayaati walkaraamaati man laa yujaara walaa yumaara walaa yubaara walaa yubaaha wala yudaaha cheikh seydul xaaji malik si ibnu osmaan wa radia taala an jami asxaabihi wa abnaihi wa axbaabihi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi dellu di leen ndokkeel ci guddi di nuyoo di teg nuyoo bi ci loxo sango jotaay bi mu cheikh seydul xaaji mansour si ibnu cheikh seydul xaaji abdul aziz dabbaax cheybat alhamdi ibnu cheikh seydul xaaji malik di leen wax ne ñoo ngi sant yàlla di ñaan yàlla ñu yàlla fayal seydul xaaji malik incha allahu kàddu yu du yàgg ndax guddi na ba noppi fajar ngi bëgg a jot dañu ciy barkeeloo rek ci ndigalu kilifa yi jox kàddu gi Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour waaye yàlla nañu yàlla fayal Seydi Xaaji Maalik billaahi fukki fan yi ñu dugg ba tey jii ñu toog di gàmm ku ko doon jéemit doo ko mën loo xam ni boo ko doon wut doo ko am ndax doo am doo xam fan ngay jaar ba am ko mag mi ko sonnee yàlla may ko ko ba mu indil la ko nga bokk ca war nga koo sant wax naa ne Seydul Xaaji Malik waliyun muwaffaq waliyun muwaffaq huwa Seydul Xaaji Malik yàlla moo may àla Seydul Xaaji Malik xususiyatan min xususiyaati dëppaleel ko gàmmu def nañ ko ba tàyyi defa nañ ko nu waaye bi ci Seydul Xaaji Maalik dugalee loxoom dañ xam ni gàmmu wax dëgg yàlla Seydul Xaaji mali moo ci am tawfiq ñu la laje fii ci Tiwaawan moo war a taalifal ñu téere bu ñu noppal mag ñi yàlla nañu leen yàlla fayal Baay Alaaji bu Saaxo maam Amar Siise Pir maam Tafsir Saaxo tabaarakallaahu ndax falaw qabla mabakaaha bakaytu sababatan bi soda safaytu nafsa qabla tanaddumi walakin bakat fa hiya jalil bukaa bukaaha fa qultu alfadlu lil mutaqaddimi alfadlu lahum humul qudamaau nagtarifu ونتطهر من من سقوط مائدة معرفتهم وسيرتهم وتفسيرهم Maodo moo ne gaa yi yaa xaayisal baxri yow miy seet waa ji wala ngay jàngi waa ji jaru sori india kaay ci Maodo ma wax la njool makka njool faama ni nga ñëw mu waxla la kuy njool makka india astaafun biha am na ñoo xam ne bi ñu bind ci rasulilah yi dañ ko def nasru defuñu ko poésie Maodo ñëw def ko nazmu nazmu mooy poésie arabe poésie arabe nag balaan koy def faw nga jeg ko fànn yiñ koy defee xoolal maam Xaadima Jaxate Kala dafa taarif téere tudde ko mu bayyinul ashkaal ñenn ñi ni mu bayyinul ishkaal yépp mën naa nekk ma nga naan qaala ibnu Muusa makalas ma jaddihi مرتجيا عفو الرحيم عبده حمدا لربي واذع الميزان من قد نفى الشعر عن القرآن سبحانه ربا حسابه السريع مديد فضله على الخلق جميعا Seydi Hadji Malick moom jàpp na fu téere nekk moom la fay xaar mu yónnee ci maam xaadi àbb téere ba maam xaadi ni ndaw la boo demee ni Maodo ku mel ni moom du àbb téere da koy taalif moo do ni ah damaa bëggoon bàyyi mag ñu doxal waaye mag ñi ma ci dugal kon fa xamdan xoolal fi mu déparé waxul alhamdu de fa xamdan ahmadullah xamdan liman moo doy waar وقل للذي من ومن وال تساوي ما ذكر وهكذا ذو عندتي شعر موصول الاسماء الذي انسلتي والياء اذا ما شدد لا تثبتي والياء الضم وكسرا مشددا واعذبك التي او الازدددا بل ما يليه او للعلامه والنون ان شدت فلا ملامه سر حجمين فحمدا لمن ñeel buur bi nga xamante ni maa allama shi'ra ahmada mu def baraatul istilal wa in tajid wasilatan lil matlabi fa chammi balaatan lil matlabi mawɗoni liman ma allama cheikh ahmada alayhi salama wal mudamani sarmada فيا واضع الميزان بلغ سلامتي صلاتي صلاة أدرك أرض البدر أحمدا على زينة الأشجار والحلق والثرى مع الآل والقافنة آثار أحمدا من أرتب ترتيبا دوائر حوشلك أبعرها كن ذا ائتلاف لمن هدى أتل مددا وفر وفسر مكملا مهذجا رجدرا وسرا إلى اليدا وصار حفيفا للإذاء مضارعا وإن وصل خف السكون فسمي بمفروق وتدن لا تري الدهر بالهدى xam nga ki bëgg a taalif ci fànn ci poésie faf bind livre téere bu jàngale poésie il est à l'aise dans ce qu'il veut nekk na à l'aise ci mu bëgg a def waaye li ma jaaxal ba léegi maa ngi gëstu xamaguma fi xilaas fan la tàmbalee miimi ya fan la ko Seydul Xaaji Maalik tàmbalee xamaguma ko jóg rek ne alhamdulilah ah alhamdulilahi da ngay nekk ci mbir bay pare ni ah alhamdulilahi la ma doon def sotti na alhamdulilahi gàmmu gi jàll na alhamdulilahi sama projet réussir na waaye moo da dugg ci géew mi ne alhamdulilahi te al dafay ñëw lil urfi lil ahdi zikri al zihni wa lil xuduri al dafay ñëw li taarifi wa alatu taarifi al fa man yurid taarifa kabdin mubhamin qaala al kabat wa qaala qawmun innaha laamun faqat wa hamzatul wasli mata tudaraju saqat ci borom li xam borom marxatul iraab moo la ñu kon alhamdulilah xam nga lu tax loolu yàlla bi mu xamee ñun jaam yi dinañu bind te bu ñu bindee dinañ ko bëgg sant te du ñu xam nan lañ koy sante mu ci boppam sant boppam ni alhamdulillaahi lamma alima allaahu ajza xalqihi an ilwafaai bi xaqiqati alxamdi xamida nafsahu bil adali niyaabatan anhum wa qaala alhamdulillaahi ali Maodo ji ci aljooju la ko lonk alja yàlla sante woon boppam ci la Seydul Xaaj Maay lonk alam ji Maodo dafa bokk ci nit yàlla yi nga xam ni bi ñu ñëwee àdduna seen ruux laajul ñu réactivé waat ko wala ñu connecté waat ko connexion ba mu jëlee xadaratul la fi nekk boo demee ci xutba mu naan shahadata man lam yansha shahadatal qabliya fa kaana min jumlati alxaaidina min rabbihim almadiya alxaaidu min rabbihi almadiya ala taxqiqi maalik léegi alhamdu leer na lillaahi la moo tax waxul lirrahmaani waxul lirrahimi waxul lilwahaabi waxul lilfattaaxi te lépp tur yàlla la la moo tax moo doon alhamdulilaahi ah boom téere ba nee na tur yàlla yi dañ fee nekk am am am maanaam am lu ñu mën a def te gisuñu fu ñu ko def raxmaani xafaaru sattaaru sattaaru mooy suturalaate bu amoon ko bëgg sutura kan la koy suturaale razaqu mooy borom wërsëgalaate bu amul ko soxla wërsëg kan lay wërsëgal tur yooyu ñoo def délégation seeti seen porte parole bu ñu wax rabbu rabbu moom moo wax ak allahu allahu wax ak ismullahi al ba ca biir moo doon ne alhamdu kon sant gi lillaahi dellu na ci yàlla zil ijaadi li ñu miimul alhamdulilahi rabil alamin arrahmani rahim moo doon alhamdulilahi zil ijaadi te zil ijaadi mooy arrahmani rahim xamoo leen loolu zil ijaadi mooy arrahmani rahim mooy arrahmani rahmatul ijaadi ak rahmatul imdaadi arrahmatul ijaadi mooy taxaweeg arrahmani moo doon zil ijaadi arrahimi mooy rahmatul imdaadi moom la yàlla jox rasulillahi moo seedu xaaji maalik ni mu mit dinaa bi wujudi badri ñu toog di laajte waa Maodo diggante rahmatul ijaadi ak rahmatul imdaadi nan lañ koy lijjantee seedu xaaji Mansuur ni li ngeen di laaj seen sama bàyyi du leen ko wax man maa lañ koy wax lagul hamdu wal ijaadu jalla jalaaluhu wal imdaadu min fadlil muniiri nawaaxiya lagul hamdu wal ijaadu yàllaa ko mool wal imdaadu tëbb gi ñuy def rasul diggante suñu borom min fadlil muniiri mi ngi ci loxoy Muhammad ah Seydi Hadj Malick kon rahmatul ijaadi ndax yàlla turam yépp daf ci am tur yoo xam ne du ko abal kenn du ci dugal kenn seydina muhammad jox na ko rahim bil muminina raufun rahim waaye doo dégg bil muminina rauf rahman déedéet arrahmanu li zaatillaahi wa rahimu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi l imdaadi alaaji maalik ni lawul hamdu moom yàllaa ko moom wal ijaadu moo fi indi ñëpp wal imdaadu nag lu fi waaye doon seydina muhammad la yàlla boole ah mu mi dinaa bi wujudi badri waa léegi boo demee ci abadaa buruux moo wax waxul ni wa man yaqul huwa kal badri yaa jahlan lahu wax na ko de mu ne ku ni Seydunaa Muhammad dafa mel ni weer ak a ngaa réere Seydunaa Muhammad moo doo ñëwaat ci miim ya ni wujudul badri boo teeluwul da nga yaakaar li moo da waxoon fi dafa am contradiction déedéet bi wujudul badri moo doo ngi jàngale foofu tasawuf ndax ki nga xam ni dafa bëgg a dem ci yàlla awalu xutwatin fii qaay tarbiyati tànk bi muy njëkk ci tarbiya dafay mel ni xolam weer dafay fenk weer bu fenkee hilaal lay tudd muy yokk di yokk ba nekk badran bu mu feesee dell nak ci law la wëliyu bi di mën a def ci taalibi li mu bëgg a def ci moom Seydu Xaaji Maalik ni bi mu ngi juudil badri Seydina Muhammad mi nga xamante ni bi yonent bu am la nga am moom moo la ko jox alhamdulilah ah suma salaatu wa taslimun yafuuqu ala miskin warandin ala dir fadli walkarami maa raada raadu daf ci am salaatu yi boo xam ne jalaaliya la am salaatu boo xamante ni bi jamaaliya la salaatu bi ànd ak jalaaliya mooy bi nga xamante ni bi malaaka bi yore dënn wi moom lay sàbbaale yàlla ah moo doon maa araada raadu wala warqaa aw tanxibu min hadiila salaatu bi ànd ak jamaaliya mooy bi ngay dégg mu neex mel ni ay son boobu la piccax piccax mi di wax buy sab naan kurkutug kurkutug kurkutug maam haadi nee na kurkutug kurkutug ku amoon fatxu doo ci xam aw xaraf loolu Seydou Hadj Mari la ko maam haadi Touré jànge te nag firiwuma miime bi ngeen miin firiwuma xilaas bi ngeen tàmm dégg xilaasu ahlul ishaara laay firi waaw xilaasu ahlul ishaara moom laa ubbee gàmm gi mooy mooy moo tax introduction Seydu Xaaj Maalik ci la xam-xamu Maodo wane ci la Maodo wane xam-xamam ci biir téere bi léegi nag tay jii tey tey Abdoul Aziz way na ko sànq bunt boobu la ñu fas gàmmoo xam naa fukki minit ak juróom laay jox góor gi rajo bi ndax quatre heures vingt cinq moo jot Maodo wa abdu mutalibin min baadu marra ila Seydi Haaji Maalik fataati zuurata moom fataati zuurata zaatil majdi wa zaatil karami waaw abdu mutalibin maam abdu mutalib mi min baadu ginnaaw xisag reen bi ga ak xisag loj giléem ya ak xisag saraxe ko ak ba yi bañee naan ko dañ bul ko rey boo ko reyee mu nekk aada fil fihri xaaluuhu xaaluuhu xaaluuhu laa tafaal bida abadan moo doo dégg dégg xolal xaaluuhu yaquulu xawlan bokkul ak xalaa yaqiilu xalaa yaqlii xillan bokkul ak xaalaa yaqiilu xaylulatan xaala yaquulu qawlan xalaa yaqli xillan xalaa yaqli qaylulatan xaaluuhu ña ko bañoon xaaluuhu nee nañu ko laa tafaal bi abadan bul rey sa doom ji mukk boo ko reyee mu mujj nekk aada ku amati fukk rey benn moo doon ni nag min baadu ginnaaw ba xis sa boobu jaare jàllee min baadu marra romb na ñam romb waaye fan la jëm mu ni ilaa fadaati zuhrata kuy fadaatu zuhra Maodo mu ni zaatil majdi boroom tedd nga wal karami kana romb abdullahi mu ànd baayam abdul mutalib ku ñu romb fatimatu bintu muniya mara ñoom ñaar aram raatin tudaa bi fatimatin tabu eh almamala hiya wa hiya lam turami déggoo li góor wax de Abdul Aziz tabri hiya almamala hiya wa hiya lam turami mara Abdullahi bi muy dem ànd na ak baayam ñu romb alamra atin ci benn jigéen nu mu tudd Fatimatu bintu Muniya tabari ma ngay sàkku hiya moom almamaala jengug abdoulaye ilayha wa te booba muy sàkku abdoulaye pour ñëw mu ñëw ci moom lam turam yi taxu leen a jóg moo tax doon gone du tee nga xam la nga bëgg booy def ku la may nga jël léegi tee nga bàyyi sa bopp ci àll bi fatimatu bintu mun ya moom la Abdullahi romb ànd ak baayam mu gis leer gi ci kanamam mu ne ko ay waay Abdullahi tee ngaa ñëw ñu ànd man ak yow rek téeméeri giléem yi ñu la jote woon mu dubli ko bar téeméer jox la ko ngir benn guddi Abdullahi ni ko déedéet amal xaraam def lu bon déeyam a ko gënal sekk ak jigéen dagan a koy waral ana dagan gi may booleeg yow yaxmil karimu irdahu wa diinahu yaxmil dina làq dina sàmm al karimu ku tedd irdahu deram irdu nag du der bii ci kaw déedéet shaa'ir ba nee na irdi li irdi nabil mustafa min fudqaaw al irdu allahu akbar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 allahu akbar allahu akbar laa ilaaha illallaah. wahdahu laa shariika lahu. asalaamualeykum mbokki jullit yi. jóg leen ñu waajal waxtu wi. jóg leen ñu waajal waxtu wi. quatre heures tegal na fanweeri minute. six heures zéro minute ci la ñuy salaatu. waxtoo genn wàll moo des ci fajar ji jóg leen ñu waajal waxtu wi jërëjëf kon ñu dugg ci bayit bi ci tegu rek tabaarakallaahu soxna si nii abdallahi nañu ànd rek ma jox la sama bopp abdallahi ni ko déedéet góor day sàmm deram ñu ni der mooy lan al irdu mooy maxallu dammi wal madaxi waaw kay góor gi nag seen xaaju maa léegi nii fi cheikh bi may nañu seydina abdullahi ba muy ànd ak baayam ñaata àllam si mu ne xat wana ilal xayri 18 ans naa fi dayri wan niqami may nañ ko abdullahi waaw kay kañ la jël abdullah kañ la abdullahi jël seydatuna amina ak kañ la ñu ëmb rasulillahi moo tax mu ne xam naa ko fi cheikh bi يوم الشنال المختار قد حامل وقال شهر بن عبد الله ذو الوزمي ليلة العروبة حل الضر في رجب في شياب أبي طالب لا قد حملت أمنا مو كان سيرتنا آمنة كان أم رسول الله فن في شياب أبي طالب مربن بيش لمن خمناكو كان لسي من ألتنا لا وقال وخنا كنن كل لولو كم وخلان لا من الشاولي ابن عبد الله أتشتري لنا ليلة العروبة هل دروا في رجب ثم المنادي ينادي موسى الفيمي mu ne guddi àjjuma la ñu ëmb rasulilaay sëli ibnu abdullahi loolu la summa ginnaaw ëmb booba mu sottee nag almunaadi aji woote ja ma nga yunaadi ma ngay woote kan lay woo musma il fahimi ki mën a dégg woote yàlla ba tax mu dem di gàmmu ji seyduna muhammad moo moo doon waa ji doon wax xam nga ko mu ne xam naa ko tanabbaho أن نور الختم la قد حل في خيمة من أطهر الخيام moromani Sëriñ Ibnu Abdullahi nee na bi ñu ëmbee Rasulillahi am na koy woote ci asamaan am koy woote ci suuf am koy woote ci nit ñi am koy woote ci jinne yi am koy woote ci malaayika naan xam ngeen lu xew ëmb nañ sangu àddina ak ci guddi tanabbahu yeewu leen waaw kii woote kan la lu muy yëgle mu ne an nanu nal xat leeru sangu àdduna ak alaaxira war a mottali ràngu yonent yi xamilat xam nga lu mu wax ana attiroo xayral buxuur wa afrisoo xayral sajaadaati takriman ala xusami attiroo heure bi tembe tembe tembe ci gàmmu gi ñëpp a war a yeew yeesal seen njàpp parfum war na attiroo parfum wu leen bu mu doon baax na bu gën a cher baax na bu wayaam baax na xayral bu xuuri wa afrisu sajaadaati ngeen tàllal sajaada yi lu xew takriman ngir teral alal xusami ci borom yiwu bëri bi di Seydina Muhammad قال الملائكة أبواب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في أعظمي قال ملائكة ينان أسمان أسمان أبنى بنتي أسمان asamaan ubbi na ay buntam lu xew leeru gën di mbindéef jóge na ci ndiggal Abdullahi dem na ci Aminatu wa nuuru shamsi fi idami fii idami xoolal wa te ba ñu xëyee ci suba ga nuuru shamsi leeru jant ba fii idami mi ngi ci màggaay moo tax mbokk yi bu ñu nee gàmmu dañuy gàmmu faaw mu am ñu ni gàmmu bi daal wala daa araam yàlla équilibre la bëgg wa aqimul wazna bil qist électron positif ak électron négatif faaw mu am ci univers globule rouge globule blanc faaw ñu am ci jëmmu doomu aadama salbiyaat ak lan jaz jaaliba wa saalib faaw mu am ci dund doomu aadama kon faaw mu am ñu ni gàmmu sunna la gàmmu bidaa la gàmmu daa araam am ñu toog di gàmmu ngir rasulillah waaye kii naan gàmmu daa araam déglul abu lahab xam ngeen ko nga xam ne tabbat yadaahu wa tabba maa ana anhu maalu maa kasaba mook jabaram yëpp sa isla naaran zaata lahabin wa amraatuhu xammaalatul xatabi bisu altine li safar ay tàng-tàng abu lahab kenn du ko mbugal xam ko may loolu bi Moustapha gane àdduna dafa kontaan ba goreel jaamam déggoo de kontaan benn yoon bañ Moustapha giiru dundam ba mu faatu ñu war koo mbugal altine kenn du ko mbugal lu tax ndax dafa kontaanoon benn yoon maa annahu lam yu'min billaahi ah bi rasuulillaahi wala bi maa jaa bi rasulullahi teewul altine kenn du ko mbugal lu ko may loolu mooy kontaan benn yoon bi mu kontaan ci gane àdduna rasulillahi waaw léegi xoolal ñun dañoo gëm jol màkk suñuy bàyyi gëm rasulillahi suñuy maam gëm rasulillahi suñuy maamaat gëm rasulillahi ñoo ñooñu di kontaan ci Seydina Muhammad bu dee gàmmoo bu dul gàmmu bis bu nekk ñuy bëgg rasulilaay kon ñun xanaa boog wax dëgg yàlla ku war a mën a bu ñuy may benn yoon bu pause bañ a mbugal Abu Lahabin benn bis ci altine bi ngal la ñun ñi ci dëkk ngal la ñun ñi dëkk di màggal rasulilaay kon malaayka yi ni abwaabu sama futihat kada abwaabul jinaanu futihat lu xew lu xew wa nuuru samsi fi ay dambi wa an na ran na nag lii tax lii mën a am wa an na ran na wa an na laayinu rannatan wa an na laayinul xabbu rannatan wa rannatan ranna iblisun wa an na iblisun ranna iblisun rannatan <laughs> Seydi El Hadji Malick maanaam Maodo bu dee bind lugal arabiya arab yi kalimaat yi ñooy njëkkante ci buntu kër Seydi El Hadji Malick tazaxumul kalimaat ah waaw kay fii muxraqin wa fii yaraati Seydi El Hadji Malick li balaagatin wa balaagatin waaw Seydi El Hadji Malick nekkul cheikhul machaayixi parce que ñoo ko ñoo ko takkal de al machaayixu shahidu bi annahu huwa cheikhuhum ah yàlla na ñu yàlla doolu sutura iblis dafa jooy yooxu waa këram ñëw ni ko waa góor gi looy jooy mu ne yàqu nañ ni ko lu xew mu ne assurance su àdduna ak àllaaxira gane na àdduna assurance su àdduna ak àllaaxira la ñu ëmb gane na àdduna i eh fan la ñu jëm ndax xoolal Moustapha al anbiyaaw xar xuliqu min rahmatin déglul de waaye wa rasulullahi wa aynu rahmati yonent yi yàlla ngi leen bind ci lu ñuy wax benn matière bu ñu wax yërmaande ñoom yonent yi waaye matière boobu mooy jëmmi rasulillahi moo tax waa kër Cheikh na yi bu ñuy bàkk njool màkk salli wa sallim ala ayni rahmati rahmati bii nag rabbaani yàlla nag ah waaw kay maxdum minnati min allaahi iblis jooy mbooloo ma ñëw waa booy bàyyi jooy mu ne awaay yàqu nañ yaxduruhu junuduhu mi ngi mer moo tax boo gisee ñuy weddi gàmmu dañuy mer dañuy mer bay lox diiran min asadami dëgg yàlla gàmmu nag bala ngay sonn ci kii dem gàmmoo kii demul gàmmu nga lijjanti ki dul julli boog ba muy julli moo gën a wóor ñun ñu ngi ñu ngi julli kañ ñu ngi woor ñu ngi dem màkka ñu ngi joxe asaka ñu ngi jaamu yàlla boole ci gàmmu nga ne ñu du ngeen jullit wax dëgg yàlla yéen ñu li ñu nekk nag yàlla ñu defal defal jàmm wajaadamu tabshiran laha idrisu tabshiran laha nuuxun tabshiran laha moo da nee na bi ñu ëmbee maam ah, maam Seydina Muhammad Sayyidatuna Amina nee na toog naa ba yàgg am génn góor gu ma dikkal góor gi xaw ma ko ci araab xaw ma ko ci màkka xaw ma ko fu dul màkk moo sub ci góor ñi taar ba mu yor xanaa xamuloo ne aadama aadama huwa ajmalul xaliqati mbindéef yëpp aadamaa ci dàq ginnaaw seydinaa muhammad ah wa ashbahul ajdaadi bi rasulillahi huwa seydinaa aadama moo gën a nuru seydinaa muhammad idrisu ñëw na nuuxun wahudun wal xalila ñëw na suma dabixu kalimullahi ñëwoon na kilmatuhu ñëwoon na fi awali shahri fi tartibi laa tegi mi yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla defal tawfiq tabaarakallaahu quatre heures cinq heures dix moo jot kaddu yaa ngi bëgg a yàgg loolu lañ doon barkeeloo rek ci téere bi jox sëñ sëñ Seydi Mouhamadul Mansour kaddu yi dañ doon woyal ndigalu kilifa yi rek ci jéem a firi xilaasu zahab donte ni benn bayit la sax lañ ma waxoon waaye ëppale naa ko yal na yàlla defal jàmm yàlla ñu teewee déwén yal na yàlla bàyyi xale fi mu yàgg fi waaye leen rek laay wax mooy képp ku gàmmu si woon na góor góorgóorlu boog buy njibbi yóbbaale benn pins boog pins yi ñuy jaay pour jumaa ji contribution jumaa ji la pince bu nekk junni lañ koy jaayee junni nga jël sab junni def ko ci kondaane bu ñuy wax jumaay Seydou Hadji Malick ji déwénee boo ñëwee kàbbar ci yàlla nañ ci yàlla yóbbu jaay nabi Mustafa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xaj euh, Souleymane jërëjëf xaj Souleymane jërëjëf bay xaj jëf Mbaye jërëjëf alxaji Daawud jërëjëf Abdou Aziz jërëjëf yéen ñépp ak mbokk yu tedd yi ngeen àndal ci njabootu xadr bi euh, boobu ba léegi yéen ci liggéey bi ba weer wi feeñee ba burdu bi tàmbali ba ci tey ji bàyyiwu leen benn bés boo xam ni lañ ca di bégal xolu nit ñi ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di teg suñu kàddu ci kàddu Cheikh Seydil Hadji Malick Maodo ibnu Cheikh El Hadji mi nga xam ni sànq ñëw na fi yàgg na fi taxaw fi taxawaay bu rafet tooyal xolu ñëpp moom itam ci lépp loo xam ni wax na ko fi kadaalika na ko noonu bésu burdu bu mujj bi ñu ngi ñaan yàlla guddal fanu Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour sama doomu turandoo di ñaan yàlla yàggal ko suñu kanam may ko wér mën yéeg yeeg nisër yeeg nim sa yeeg yaakaar yi mu am ci yàlla yàlla may ko mu eggale kook jàmm ànd ceeg yéen ak ñu nag mboolem njabootu xadra bi ànd rek Cheikh El Hadj Malick Sy Abdoul Aziz ak Cheikh Seydi Aboubacar Abdoul Aziz ak bépp mbokk bu ñu bokkal liggéey bi ak ñun njabootu xadra bi góor ñeeg jigéen ñi mag ak ndaw loolu lañu ñaanal képp koo xam ni dugal na ñaqam dugal na ndimbalam dugal na ay ñaanam ci gàmmu gi nga xam ni ay at ci gannaaw mu ñaari at kenn xalaatatu ko woon sëñ Babacar mën nga ni décision yi mu ci jëloon yépp dafa delloo ci yàlla ak ñi nga xam ni yàlla xamal na leen lu jëm ci wàllu médecine lu jëm ci wàllu biologie docteur yeeg chercheurs yëpp jaaxle woon nañu xamuñu li nga xam ni sowoon na yàlla yàlla indi ko fi muy virus boobu docteur yi lañ ko ca joxoon ci ne lii lañ ci yàlla mosal ci xam-xam kon lépp lu doon doon daje yoo xam ni tabaarakallahu nit ñi dañ cee jegante lool te dootul wóorati mu ñaan nit ñi jëfee ndigalul yàlla ak ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu fagaru ak ci wàllu euh, xam ndigalu sharia ba indi woon na ci lu aju ci fa Sayyiduna Umar ibnul Xataab doon dem te fekk mbas nekk fa ba mu déggee mbir mi saw nan li nufuusi wa abdaani képp koo xam ni nekkoon na ak Seydina Omar ci njabootu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nañu dellu Medina ba yàlla jëkkati mbas mi kon sëriñ Babacar gàcce ngaalama ci noonu mu waxtaanee njaboot gi njaboot gi itam gàcce ngaalama ndax dégg nañu ndigalu sëñ Babacar ak ndigalu docteur yi ne samaan wa taatan ba yàlla woyofalee itam may ñu ñu daje fi ren daje nañu ci Tiwaawan tey lii ñuy wax fii lañuy wax ca njabootu sëñ Babacar ga ca jumaay baayam turandoom bu tedd ba Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu ak doomam ju baax yi nga xam ni ñoom itam ah la docteur yi waxoon sëriñ bi waxtaan ceeg ñoom xam nañu luy luy waree fu njaboot ci kilifa moo di déglu ko te déggal ko te moom jër yërmande ko taxoon a wax ak itam xam ni responsabilité la ca kanamu yàlla wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu ji nag mooy la ca war yàlla nee na bu leen gis loo xam ni seen musiba nga ca seen balaa nga ca ngeen sóobu di ca tëb di tëb di ca dugg kon loolu sharia la alquran la ñu ngi gërëm képp koo xam ni dugal na loxoom ci gàmmu gi ak fépp fu ñu gàmmoo di dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ni moom la yàlla wax ci xàqam wa in tutiuhu tahtadu lak laqad kan lakum fi rasulillahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha wal yawmal axir yann yàlla fay képp koo xam ne su lislaam wootee sharia woote sunna woote madrasa bi bokk ñun ci wàllu martabatul ixsaan ndax lislaam a ngi fi liimaan a ngi fi lixsaan fi ak tasawuf sunni nga xam ni nekkul tasawuf bida yi te loolu ñu mbooy moo ñu booleeg ndénkaane Cheikhuna Tijaani radiallahu anhu mi nga xam ni doo ko luñtu ba fekk ca dara lu dul sharia ak sunna mu topp maamam fu maamam teggi tànk mu teg fa tànk te moom la xamal képp koo xam ni dem nga ba yàlla dogal nga doon njaboot ci tariqa bi nga xam ni moom la ko yonent bi sallallahu alayhi dénk ñu ngi ñaan yàlla defal jàmm njabootu xadara bi yépp yeneen xadaraat diini islaamiya yi fi nekk tam yàlla defal leen jàmm defal ko seen kilifa yi nga xam ne ñoo ko jiite ak xulafaa yi te yàlla def jàmm ci àdduna bi yépp def ko ci Sénégal def ko ci ummatu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñi tam seen taxaw ràññiku na seen taxawaay ràññiku na yàlla na leen yàlla fay ñu ngi ñaan yàlla yàggal fi gannaaw Cheikh Seydi Ababacar ak ci wetam ak Cheikh Alxaaji Malik ak sëñ Babacar ak njabootu xadra bi aimma yeeg asatida yeeg mursidun yeeg muwajjihun yi nga xam ni ñoom ñooy jàngale di yéete di xamal nit ñi lan looy seen diine teg ko nag ci alquran ak sunna ak ummahatul kutub ñi ñëwoon ñëpp ci gàmm gi yàlla na yàlla sàmm leen may leen mucc ba ku nekk dellu këram ba yegg ba bekk mbubam ne alhamdulilahi rabbil alamin li fi yàlla wàcce ci tagg yi ñu fi doon tagg yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak xeñtu sunnaam xeñtu sharia loolu yëpp ci jaamu yàlla la bokk bépp yiwu ci yàllay wàcce ci jëfe ndigalul yàlla yàlla na ca ñëpp kiilu yàlla na ca ñëpp xéewlu incha allah ba nëgëni déwén ak balaa déwén yeneen xeetu munasabaat diiniya ak xew-xewu diine yoo xam ni dana dana ñu dajale nii luñ ci mën def ci taxawaay ci xadra bi ak ci diine ji ñu def ko incha ñeneen ñi nga xam ni tam sëriñ bi joxe na ndigal ci gàmm yi dañu war a taxawal ay gàmm ren ba déwén yenn yàlla jàppale ñëpp guddal fanu ñëpp may ñëpp wér su soobee yàlla ñu ngi euh, sant autorités yi nga xam ni gàmm gi bi mu ñëwee itam lépp loo xam ni waroon nañ ko ci def def dañ ko ci dale ko ci président de la république jaar ci gouvernement am ba ci premier ministre bi mu fal bu yàggul ba ci ministre de l'intérieur bi nga xam ni CRD yeeg réunion yi ñu doon def yépp euh, njabootu xadra bi gis nañ ci préfet Tivaouane ak ñi fay liggéeyee ak gouverneur u Thiès ak ñiy liggéeyee ca gouvernance préfet Tivaouane di préfet Mouhamadou Guèye gouverneur u Thiès di monsieur Alioune Badara Mbengue ba bañ fa jógee itam sëriñ Habib Mouhamadul Mansour ak sëriñ Mouhamadul Mansour si Jamil di seen mag ñoom ñëpp ak sëñ Moustapha si Abdoul Aziz ñu ngi mujj daje bu mujj bi ca ministère de l'intérieur ministre bi itam lépp lu ko ci njiitu réew mi joxoon ci instruction ak recommandation taxawee na ko ba mu mat sëkk ñooñu ñëpp nag amuñu lu dul réew mi te nag réew mi ku fi juddoo yaroo fi màgge fi di citoyen ci nga bokk am nga xuquuq yoo xam ni dañ la ko war a sàmmal ak cër yoo xam ni dañ la ko war a jox ñi nga xam ni tam dañ fi juddoo te cosaanoo wu fi sax cosaanoo wuñ fi sax yàlla jox leen fi cër Sénégal xatul xatalul sénégalais yi xataluñu ndax réew mu teraanga la comme ni ñu koy waxe ñépp bàyyi nañ leen xel ci anam boo xam ni lu ñu yéene seen bopp lu ñu yéene képp koo xam ni yaa ngi fi yeewoo ñu ngi ñaan yàlla saxal ñu ci diine lislaam saxal ñu ci cofeel ci suñu diggante ak suñu borom ak suñu diggante ak sayyiduna muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu diggante ak cheikhuna tijaani muhammadul xaali cheikh alxaaji omar maam alfama yoro ak suñu sang bu tedd bii ñu nekk ci xadraam maam cheikh sidil xaaji malik ak maam yu baax yi mu àndaloon ñoom ñëpp ñu di nawle di soppe di wëllëre di doomu ndey di doomu baay àndandoo ci xam ni waatasimu bi xablillahi jamian moo leen boole takke leen wala tafarraqu ak summa kaana min alladina amanu wa tawasaw bi sabri wa tawasaw bil marhamati ulaika ashabul maymana waaw ak innama almuminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum wattaqullaha laalakum turhamun ci suutul xujuraat loolu nag ca maam yi la woon waaye mel na ni nangu gu yàlla nangul maam ji seeni yéene ak seen taxawaay moo tax yàlla may leen njaboot juddoo ca ñoom maam yooyu mu ti ñu di bàyyi ay doom ak i sët ba ñi ci ñëw ñëpp toftaloo ku ci ñëw xam nga ni lii mag ñi nekkoon nekke woon wér na dëgg la doom yi tam ànd ceeg ñoom te Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz bés dafa ni Mansour ma ne ko waaw mooy ma ñun ñoo leen ëpp chance ma ne ko lu tax pap nga wax loolu mu ne ñun yàlla daf ñu boole woon ak mag mu mën a yar te teg lépp ci sharia ak na mu Cheikh Alxaaji Malick Si te ak mag ñu baax ñi àndoon ak moom te ñu nit njaboot bi ñu nangu yar ba suñ ko nanguwul woon dana metti nangu ko nag ba tax yàlla saxal fi lim fi saxal day delluwaat ci euh, yàlla la mu wax ci alquran wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbihi walladi xabusa laa yaxruju illa nakidan kadalika nusarrifu alayaati li qawmin yashkurun ak man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yowmi alqiyaama wal aksu saxiix ak yusabitu llahu alladina amanu bil qawli saabiti al qawlu saabit moo ci dugal doom yi moo ci dugal sët yi moo ci dugal sëtaat yi fi lxayaati dunia wal axira wa yudillu llahu alzalimina wa yafalu ma yasha kon suñu yàlla boole ci ñuy nangu Euh, lépp loo xam ne ndigalal yàlla la ñu teg suñu tànk fi mag ñi tegoon tànk yi loolu lu mat a sant yàlla mënoon na soob yàlla mu doxale neneen mag ñi aw ak ànd ak yàlla ñun ñu ñëw su fekkee ni nafs rek la ñu topp duñ leen topp ndax wa maa ubarri'u nafsi inna nafsa la amaaratun bi suu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi la gafurun rahim kon ñu ngi sant yàlla bu baax moom mi nga xam ni moo ñu naq ci la mu bëgg tey suñuy maam yi nekkoon ci suñu baay nekkoon ci moo ñu naq ci li mu digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba kenn mënu ci génne sa bopp te dañuy ñaan mu saxal ñu noonu ci bépp anamu ndigal loo xam ne day jóge ci moom takk ngalaab ci suñu gémmiñ ak suñu bopp ak suñu lépp ba suñu seytaane nare ñoddi yàlla ko ëpp doole yàlla xëccaat ñu teg ñu ala nahjil qawim ba siraatil mustaqim yal na yàlla dimbali ci loolu yal na yàlla faj aajo yi wu ñu njàqare yi teggi tiis yi barkeel wërsëg yi barkeel soxna yi barkeel njaboot gi barkeel jigéen ñi barkeel góor ñi jigéen ñi ñi ci amagul sëriñ yal yàlla may sëriñ yu baax te barkeel ak njaboot gu góor ñi ak jigéen ñi ñi ci jàng yal yàlla may leen xam-xam bu sax diplôme ju kawe ba ëllëg ñu mën a am fu ñu tuur seen ñaq mën fa am lu leen yàlla sàmbale seen diine ak seen gor ak seen dignité ak seen personnalité ñi nga xam ne ñoo di al mursiduna wal aima wal asatida wal ulama yàlla saxal leen ca la neex yàlla te ñun njaboot gi ñu topp seen gannaaw incha allahu taala ñu ngi ñaan yàlla may ñu ñu teewe ko nëgë ni déwén ak déwén yu bare bare bare ba sëriñ Cheikh Aboubacar Sy ak rakkam yu baax yi ak njabootu xadra bi di ubbi jumaa ju tedd ji fekk lépp sotti àdduna yépp ñëw ci wetu sëriñ bi sëriñ bi ànd ceeg àdduna bi képp koo xam ni dugaloon na ci ñaqam ak dërëmam ak yéeneem ak ñaanam mu ubbi ko ci seen kanam Sénégal fekke waaw incha allah ñëpp fekke ko euh, papa xaj Yusufa Diop mi ngi ñuy fàttali loo xam ne ñu mat a fàttaliku lañu mu di sécurité bi ndax fan yi yëpp koo ci gis bu ngay dang dangi te ñu lekk te ñu naan ñàqutooy xib ngir rek ngi mën a am ci kattanu yàlla waaw ba kenn bañ a dajeeg dara loo xam ni safaan lay doon yal na yàlla yal na fay ñu yor sécurité bi ca seen njiit ya ca kaw ba ci suuf ba ci doom yi nga xam ni am nañu leen te ñu ànd ak ñun fag yi yëpp ci Tiwaawan ak fu Tiwaawan ci Tiwaawan ak feneen fu Tiwaawan nga xam ni dañu mettre seen danger maanaam seen bakkal na en péril yal na leen yàlla aar sàmm leen te may leen grade yu barkeel may leen xéewal teraanga incha allah ñoom ak seen waajur ak seen njaboot média yi nag muy euh, groupe de média audiovisuel ak média ak euh, presse en ligne ñu yor internet ñu yor leneen ak seen de télévision yi fi nekk ak FM yi seen yëpp nag bàyyiwuñ ci kenn muy seen euh, première chaîne muy RTS mu di fa tabarakallahu TFM mu di asfiyaay mu di asfiyaay maam maam maam maam Ndiaye nga xam ni moom doom la fi sët la fi mbokku taalibe mu di al mu di mu di mu di maxtaar xaaji maxtaar Ndiaye yor almalikiya doom la fi sët la fi suñu mbokkum taalibe la ñoom ñëpp ak seeni technicien ak seen caméraman ak seen régisseur kenn ci desul ba seeni chauffeur yeeg ñëpp taxawaay bu rafet lañu taxaw muy seen euh, seen TV mu di mu di ci lan settati 2STV tabarakallah 7TV mu di E-Média waaw euh, i rajo euh, ak ah, tv TFM wax nañ ko TFM wax nañ ko ak 2STV ak média yëpp ba ci média radiophonique yi nekk biir Tivaouane waaw Albayaan di Dabakh FM di Alburaaq ak kilifa yi nga xam ne ñoo ko ubbi ak ña fay liggéeyee tabarakallahu ahsanul xaaliqin ak képp daal koo xam ni wax dëgg yàlla an qurbin aw an an bu'd jël nga sa yéene ak sa itte def ko ci lii di gàmmu gi pour mu am réussite ba ñëpp bég ñëpp kontaan ñi ñëwoon sax defu ñu lu dul toog di déglu am daax nabawi yi xasaayid yi ak waxu assatise yi ñi nga xam ne dañ doon participer guddi gu nekk ci keppaaru cheikh sayidi aboubacar abdoul aziz gannaaw bi xalifa bi joxee diggal comme ni ko xalifa bi sance woon def ko muy sunna ne bëgg na njabootu xadra bi mag ak ndaw ñépp di fi taxaw ku nekk ñu jox la benn bunt bu euh, làmb lenn ci xayaatu rasulillahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam ñu gëstu ko càmbar ko def bahs recherche jàngat ko ñëw teg ko ci kanamu nit ñi nit ñi fàttaliku ndax yàlla moo ne woon yonent bi wa zakkir fa inna zikre tanfaul muminin wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun ila axiri al ayat moo taxoon keroog ci bés bu njëkk bi ci budd bi ma ni gàmmu gi ñuy def fii ci Tiwaawan nag feneen séminaire la école la université populaire la sooy gis liy xew wax naa ko keroog ca Makka ak madina alxaramayni sharifayn ak fépp foo xam ne jullita nga fa su koor ñëwee ngay gis ñuy def ci salaatu taraweex ak salaatu tahajjud asatise yi di jàngale gannaaw ba leen yàlla xamale lam leen xamal ñuy def ay muhaadarat ay conférence di def ay duruus ay leçon ngir xam ni wax naa ko keroog sayduna muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam koor gu nekk yàlla daan na yebal mawlana tabaraka wa taala seydina jibril alayhi salaam mu ñëw ci wetam def ak moom muraajaa ti lépp maanaam nafaraat fàttalikuwaat lépp lu yàlla wàcce ci alquranul karim ndax yàlla euh, xam na ni nit dafa gaaw a fàtte mm-hmm. su ko defee fépp fu ay nit di daje pour fàttalente fa li yàlla wax ba ci xutba ajjuma li tax yàlla ci xikmaam ajjuma waroon nekk lañ cay julli ci tisbaar comme yeneen tisbaar yi ñeenti rakk sunu boroom ci coobareem mu wàññi ñaari rakk remplacer ko xutba boo xam ni ilimaan bi day war a xam actualité réew ma mu nekk xam lu cay gis-gisu yàlla ci li mu dénk yonent bi sallallahu mu artuñu ñu ca wala mu digal ñu ca lu mu ñu ci digal imaam bi waxtaane loolu ndax ñi dëkk ci gox bi yépp xam ni luy xew ak luy ay di njàmbat suñ ko jàmbatee ñu indil ñu ay axkaam sharciya sunniya ci alquran ak xadis wax ni lii di xew de jaaduwul wala lii su fekkee ni lu rafet la lii mooy jaadu sax leen ci li jaaduwul ngeen moytu ko kon ad diinu nasiha lillahi wa rasulihi wa lil muminin kon nasiha boobu tam mooy tax ñuy daje ci jamonoy burdu bi di fàttalente li nga xam ni yàlla digle digal na ko nit ñi yonent bi saa sallam jottalul ko ko kon asatida yi nga xam ne ñoo doon def liggéey bi yëpp muy fii muy jumaay Cheikh Seydi Aboubacar yal na leen yàlla fay oustaz alxaji Pape Diop mii ci la Abdourahman Touré suñu doom suñu sëriñ ca la Mouhamadul Amin Ñang bu alxaji Bachir cela la Cheikh Mouhamadul Habib si Abdoul Aziz ca la oustaz Papa Makhtar Kébé ca la pab Pape Youssoufa Diop ca la fa tabarakallahu Cheikh Mouhamadul Bachir Ngom def na ko fi ba tàyyi ah. sëñ Moustapha bu Pamoo docca la Oustaz Souleymane Ba moom itam ñëw dal di indi idaaxaat ay leeral yu mu leerale nañ lépp lu jëm ci xayaatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ci ni mu ko gisee ci xasidatu burdatil burdatil madiix di nettali biographie yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walakum fi rasulillahi uswatun xasana wax yàlla wax na ko ak laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla ko wax wax na ko te yàlla nee na faatabiru yaa ulil absar dañu war a def itibaar di jàng di jàngat waaye dañu gis ni yàlla wax na ko ñu moy ca jéem caa moy te ku sabablu rek yàlla dimbale la looloo tax ñëpp di ñëw di toog di déglu te liñ fi jàng jàngale ko fi yàlla na nekk muuru ñu toogoon di déglu ba yàlla dugal ko ci seen xol ba loolu gën a euh, rafetal gën a defaraat erreur yu nekkoon ci ñun yàlla corrigé ko lu ñu nekkoon ci lu baax yàlla saxal ñu ca ñu koy dundewaat ba déwén kilifa yooyu asatise yooyu olama yooyu indilaat ñu loo xam ni dana tax ñu gën a comprendre suñu suñu diine ndax yaarifuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuni fa kayfa taabuduni jàng leen ngeen xam ma balaa ngeen may jaamu su ngeen jàmmul nga xam dara ci sama ayat ak samay ahkaam ak sunanu sunatu nabi saa sallam ana fan ngeen di mën a jaar ndax cahier de charge day am feuille de route day am ci lu mu mën a doon barnaamaj muy programme ak agenda day am ci lu mu mën a doon ña nga xam ni ñoo bokk euh, kuréel ga tënku ci la nga xam ni mooy la nga xam ni moom la ñuy dégg ci ay njàngale ba fu ñu toll rek di gën a am perfection ca la nga xam ni moo tax ñu teew pour taataan lañu war a taataan muy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi yàlla nañu yàlla saxal ci la ma doon wax sax yusabitu llahu alladina amanu bil xaqi bil qawli sabiti jooju waaw sabutu ma nabti wërsëg nag soxla nañ ko ndax koo gis soxla na ci ndimbalal sunu borom loo xam ni dana ci yàlla dana ko ci sàmmale diineem ak ngorom ba dara du kooj diineem ak ngorom wërsëg wi tam yàlla koy wàcce wa ma min dabatin fi l ardi illa ala allahi risquha waaye yàlla dafa ni wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitabin mubin yàlla xam na ni mooy indi wërsëg waaye nee na tam il faut nit ki tam góorgóorlu jigéen tam jàmbaar jàmbaar loolu tax yàlla ne ni kenn du am dara ci gratuitement déedéet ba ci surtout naa Mariam sax wa huzzi ilayki bi jiz'i naxlati الساقط عليك تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا إلى آخر الآيات kon nit ki dafa am une part de responsabilité su góorgóorlu rek yàlla dimbali ko waqul i'malu fasara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminun i'malu ala daawuda shukran wa qalilun min ibadiya shakur loolu maa ngi ci ñaax sama bopp ci ñaax képp kuñ ko bokkal loolu daal la ñëwoon nañ ko wax Euh, ci ndigalu xalifa bi ndigalu sëñ Maodo mi fi ñëwoon sànq ndigalu Cheikh Seydi Aboubacar euh, tabarakallahu Abdoul Aziz waaw incha allah xaj dàggoo nee na nayoo bi waxtaan nañu ak Cheikh Alxaaji Malick ba mu jox leen le 24 février seen gàmmu man mii sama gàmmu ci Dakar li awul li man rab ma def ko dama ñetti ñetti at 2019 yéen a ko doon gàmmu mel na ni euh, groupe ba ko yore war ko taxawee nee nañu le 21 le 21 février moom la moom laa dégg waaye dañ ko leerlu pour wax la ko Pape Dagour Pape Mansour Pape Abdoul Aziz Mbaye wàkkër ma gàmmu wàkkër ma Moussa Ale le le 18 février le 18 février incha allah waaw février bi ñëw 2023 la incha allah. nee na ñoom ñooy gàmmu ñëpp ñëpp di bég kon nag ñun tam war nañ leen bégal ci seen gàmmu ñëpp wuy si kenn bañ a manqué xam naa ni abasa itam ak ziaru euh, campement wala ngeexoox ak madinatul munawara euh, cheikh mouhamadul habib ak suñu doomu baay bu baax bi alxaaji abu bakar dañu seet ba xam nu agenda bi demee ak programme bi dañ ko wax. ne toujours pant ah, Pentecôte la. di Pentecôte incha allah yal na ci yàlla yóbbu ak jàmm. yàlla ma ñu ñun ñëpp ñu teew ca incha allah. di yu baax nag Mouhamadul Mansour Lo doomu Baye Alxaji Ahmed Lo ak Soxna Aseetu Sarr moom Soxna Astu bu Cheikh Alxaji Malick mi ngi nii toog sonn lool ci mbir yi waaye nag mbiram la. di nuyu te di ziar dellu ñu dellu di ko wax oustaz Shamsuddin Ndoy bu suñu bàjjen soxna umul xayri si ibnu bintu Cheikh El Hadji ak papa Makhtar Sarr ba nga xam ni mu nga ca Paris di doomu soxna Roqaya si ak sëriñ Abdoul Aziz Touré mi nga xam ni ak njabootu Cheikh Mouhamadul Hadi turi ñu nga ca Fass Touré soxna sëñ sëñ Abdoul Aziz di suñu doom bàjjen soxna Aïda si moom Cheikh El Hadji Malick ba tey noonu la ñuy nuyoo hmm, ak soxna ak sëriñ Mouhamadul Moustapha si góora fa tabaarakallah mu ngi daal loolu moo nekkoon li ñu war wax ñu ngi ñaan yàlla nag mu ñu nangul leen mu ñu ñu teew ko at yu bare bare insha allah ci kaw dund ak wér ak sago Oustaz Souleymane jërëjëf yéen ñëpp jërëjëf allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi ñaan Mansour nga def ñaan insha allah ñaanal def fatiha salaatu ala ñaan gi ne ñun ñii ne ci biir jàkka ji ak ñi ne ci biti ñaan gi ñuy bëgg a joxe ak ne fo kàddu gi mën a àgg te man mii te moom mii mu dégg wala ñun ñii ñuy dégg li mu bëgg a wax mi ngi ñaan moom ñu ñaanal Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour si mii toog li ñu ko santoon ci fii dara desu ci ca tàmbali ba ba fii mu toog nii lépp lépp lépp taxaw na ci wuti ci magam yépp ak taalibe yépp ak mbokk yépp ku gis ni muy waxe rekk nga xam ni kii ku sonn la waaye nag mbir mi moo ko ko jaral ñun ñii daal ñépp amel nañ ko njukkal nañu ko ñaanal yàlla ne moom dana mettit sax waaye dana jóg soox ba agsi bégal ñépp ci yàlla ak yonent yàlla muhammad te nee mu xam li ko yàlla gàll nee magam it teg ko ko muy sunu mag di sunu kilifa muy Seydi Abubakar di xalifa bi waaye daal fa tabaarakallaahu sëñ Babacar Ñang sëñ Babacar Saaxo daal ne lépp rafet ne si Malick yal na la yàlla fay yal yàlla fay yàlla na yàlla yokk sa fan yàlla na yàlla may la wér te yéegale nag ca maqaamay maam ya ak say bokk ak sa njaboot jazakallahu xayran moom daal fii taalibe yépp bëgg nañu soppe yépp bëgg nañu ba bitim réew kuy woote ñi ngi woote di rafetlu sa taxawaay barakallahu suñ Mansour ne nga ñaan ah ne ñu ngi delluy de sant koskaas ak sëñ ak sëñ Habib si mu sëriñ Babacar Mansour ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale xale yi ak jeunesse su xadara bi ñoom ñëpp yéen jeunesse su xadara bi yéen yéenay yaakaaru ñi ak jigéen ñi seen taxawaay rafet na yàlla na leen yàlla yokk pas-pas ak qabul ak ngërëm nee ñu jàng ñu jàng fatiha salaat al fatih ñu def ko hadiya mawlaana rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam allahumma yaa rabbanaa allahumma yaa mawlaanaa yaa raxmaanu wa yaa raxiim taqabbal minnaa yaa ilaahanaa innaka anta samiicul aliim allahumma rabbanaa taqabbal minnaa innaka anta samiicul aliim yaa ilaahana tub alayna innaka anta tawaabu rahim jaalisiina yaa rabbana xaashiciina mutadarriciina bayna yadayka fi haadihi albuqaac almubaaraka nasaluka yaa ilaahana alamna walistiqraar wa nasaluka alsakina wa nasaluka alcafwa walcaafiya fi diinina wa dunyana allahuma surna اللهم ارحمنا تقبل منا ولا تجعلنا من الخاسرين أبدا تقبل منا ولا تجعلنا من المجرمين يا إلهنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تستغفر بها ذنوب المستغفرين وتكشف بها عن الشدائد والأزمات تنجينا بها العز الدائم تمنحنا بها كل خير تعيذنا بها من عدة سنين يا رب تعيذنا بها من عدة سنين من عدة سنين وتفرج بها هم المحزون وتفرج بها هم المحزون bi xurmati yaa man amruhu bayna alkaafi wan nuun sallallahu alayhi wa ala alihi salaatan tajcaluha lana ya allahu dawaan wa shifaa min kulli cillatin wa musibatin wa balaa salaatan tamlau xazaa'inullahi nuura wa takunu lana farajan wa faraxan wa surura salaatan tadni baciidana ila xadraati rabbani wa tadhaba bi qaribina ila ma la nihayata lahu min maqamati l ihsani allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi xaqa qadrihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim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 wa salaamun ala almursalina laa ilaha illa allah wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin amiin yaa allah wala Maxtaar Mbaay papateri Seydi Aboubacar Sy ci ci Dakar moom it noonu la ci def ci participation yónnee na fii nag boole ca ceeb bu bëree bëri Abdou Aziz Ndiaye Zeynabou Doucouré kazalik moom ak sëriñam sëriñ Babacar Gueye suñu papa Cheikh Tidiane Sy ancien ministre Yankoba Diatara Serigne Alioune